mu mel ni aayaat yi soxna si jàng nga mën a teg sa loxo muy aaya 19 ci suuratu namli yàlla ngi ci wane ne Suleymaan li nguur li nguur gi rëy rëy négligé wu dara bàyyi na xel ku ne waaye bàyyi na xel ci lu ne bàyyi woon na xel xorondong ba tax biñ koy escorté li muy rëy rëy rëy mu taxawal mbooloo ma wàcc dëgg tànkam ca xurwa wax ak xorondong yi ñu nekk ay baadal yu néew doole mu xam li ñu dund xam seeni problème beneen bi nag bi ci tegu wane ne ne noonu mu bàyyee xel mbindee fi yàlla yi nu ko raw la bàyyee xel yàlla mi ko bind kon buur su bëggee réussir ci li muy jiite ñaar rek na ko bàyyi xel yàlla mi ko jiital ak population bi mu jaare la njiit gi ci ñoom moo tax Souleymane bàyyi na xel population bi muy xorondong yeeg li ci aju waaye bàyyi na xel buur bu bi nga xam ne tamit moo ko jox nguur gu mag gi takki ndeeral ko ci muy rabbul izzati wal jabarut moo tax Omar ibnul Xataab mos naa toog laaj yonent bi ne ko waaw lan mooy mbiri Souleymane ak nguuram gu ji mu ne ko takki ndeeram yàlla la ci kaw suuf moom ak képp ku yàlla abal nguur su ko jubalee doxal ko ci maandu njëriñ lay doon ñaal ko su boobaa tamit population bi yëpp nañ bokk sant yàlla xam ne yàlla tànn na leen ku baax su ak bi amee nag ci njiit mu ne su boobaa population bi nañu ñu muñ te xam ne tamit nattu baak musiba ma yëpp du ko teggi lii Omar waxoon na ci yonent bi mu tontu ko lii kon buur yi ñooy takkindeeri yàlla ci kaw suuf ab takkindeer ak yàlla nag kenn du ko foyee Souleymane moo tax foye wutoon population bi bàyyi na xel ñëpp bàyyi na xel lépp waaye nag bàyyi na xel yàlla ndax kisa bi ñu bëgg a nekk li bàyyi xel yàllaa ko tax moo ko tax moo ko tax a wax bàyyi xel yàlla ga mooy bi mu bàyyee ko fële ca istaxar ci bilaadu Faris tukki maag njanaaw ya jinne ya sayaatin ya ak nit ña nga xam ne place bi ñu nekk rek soo ko doon calculer trois cent cinquante kilomètres lay mat ci yaatuwaay ak ci guddu ñaay ndax nguur gu rëy jinne yaag lépp nekk ca bët bu set li ñu daan togg mu ngi tolloog juróomi junne ci ay gëlëm moom lañuy lekk ak juróomi junne ci nag ak fukki junne ñaar ci ay gàtt ganaar ya nag ñëw presque mën na ñaar fukki junne ganaar mburu ma ñëwagul ak kafe gi yàlla loon na ko juróom ñeenti mbana mbana gu ci nekk fukki gëléem lañ ciy sóor gaa yi nag yaakaar naa ba léegi nga ñu ngi toll ci mbana 30 cin yi 30 kilos waaye moom mbanaam gi fukki gëléem lañ ciy du lañ ciy sóor xaw ma nag ban ban ban ban cunguwaar moo koy war a yëngal jinne yi ñoo ko defaral cin yooya comme niñ ko defaral yoon waajur wa yaamaluuna lahu maa yashaa'u min mahariba wa tamaasila wa jifaanin kal jawaabi wa quduri rasiyaati amalu ala daawuda sukuran kon yooyu yëpp ñoo ko ko defaraloon léegi nag mu bàyyi xel population bi moo tax taxaw na ngir xorondong beneen escale bi mu war a def nag yàllaay tax waxtu julli moo jot waxtu jullee moo jot mu ne na vol bi arrêté war a wàcc vol bi wàcc nag ngelaw la wàccee ko ba ñëpp wàcc ci suuf ca wetu yaman fekk romb na foofu suuf sa rafet gàncax ga taaru mu bëgg xool ni suuf sa mel ñu wàcc nag waxtu julli fekk leen fa bi waxtu julli wi jotee comme Moussa Ndioumbéli mi mooy wane fi ndox am parce que armée bi kenn ku ne ak li ngay liggéey musaa Ndioumbéli mi mooy ñëw wane ne fii moo gën a jege ndox parce que fii ma taxaw ak ndox mi 10 mètres lay toll léegi léeg mu nekk 30 mètres léegi-léegi mu nekk 40 mètres saa yu ñu wanee ndox nag mu door a woo jinne yi ñu gas forage moom waxtu julli wu jot bu leen fekkee ci àll forage la ñuy gas ndax kon réew dafa war a bëri forage ba du manqué ndox Souleymane ka forage yu bëri la gas léegi nag waxtu julli wi jot te Moussa Njubli mi war a wane fi ndox am gisuñu ko mu ne maa lii la laa aral bu tax a jubla lan moo waral gisuma Moussa Njubli mu woo nag ministre bi nga xam ne moo jiite armée bi armée picc yi loolu kooku mooy tan ndax ni gaynde nekkee seefu bàyyi may eh, eh, eh, maanaam bàyyi may àll yi ni la tan nekkee seefu mbooleem luy naaw moo la gën a rëy mbagg moo la dàq naaw gën la am doole tan ñëw na nag mu ne ko mu Moussa Njubuli gisuma ko di te waxtu julli jot na war nañoo jàpp mu ne ko tàgguwul ma de xaw ma fu mu dem mu ne ko indil ma ko léegi moom léegi day dem mission te ma tàgguwut ma tàgguwut la bàyyil ba mu ñëw léegi tan nag moom tamit seet ci biir armée bi benn picc bu ñuy tuddee uqaab muy xoob moo dàq naaw ci xeeti picc yi mën naa naaw ba tiim lu dul asamaan asamaan rek koy tiim picc mu mën a naaw la mu ne ko demal nga seetal ma Moussa Ndioubou léegi andil ma ko moom laay xaar yonentoob yàlla bi bëgg naa jàpp ak mbooloo mi ànd ak moom julli foor na léegi nag xoob naaw ba tiim lu dul asamaan xool nday joor xool càmmooy seen Moussa Ndioubou mi ngi ñëw nag di naaw mu départ rek bëgg koo dal ci kawam Moussa Ndioubou mi ne ko maa ngi ñaan ci yàlla mi la kartanal sama kaw jéggal ma yërëm ma am na lu lay xaar ndigal ba ngay ba ngay yegg ñoom ñaar jiit leen nañ yegg si nañ ci tan tan gëdd ko foo nekkoon mu ne ko man daal euh, bëgg dal ci kawam laajul ko dara commencé bëgg dal ci kawam ganaa bi ko laajee foo nekkoon mu ne ko jéggal ma ci yàlla mi la jox kartan sama kaw jéggal ma mu ne ko li lay xaar moo gën a garaaw yonentu bi yàlla bi gëñ na ne dana la mu ne ko loolu rek la wax mu ne ko ah kay teg na ci ne wala mu rendi la taxiir la mu ne ko foofu rek la yem mu ne ko déedéet nag teg na ca ne lu dul nga indil ko preuve indil wu leer naa ñi mune ko kon mucc naa moo tax lay baax na de léeg nit nekk ci xat lay rek moo ko ci mën a génnee waaye su fekkoon ne ñaar rek lay la ban u'adhibannahu 'adhaban shadidan aw la asbahnahu noppi kon mu ne ko torox naa waaye kom dana su ma amee lay mucc am naa lay dana mucc de lay moo génnee woon bëy bi mu sobee ba romb ba roofu benn mbedd mu xadda jeeg bukki bu kii ne ko waaw kii du bëy mu ne ko xàkkay léegi nag mu ne ko wax kay jeex na mbir yëpp mi ngi ci yow bu kii ne ko li lay tax a mën mucc daal jox ma ñetti layu leer naññi bi ci ñëw mu ne ko ah kon danaa mucc parce que am naa ñetti lay bu ci njëkk mu ne ko suma ma ne suma ma sóoboo mbedd mii dajeeg yow wallahi du ma fi jaar ne ko ah loolu de dëgg la mu ne ko ñaareel bi soo ma bàyyee nii ma dem ku ma dajeeg ne ko bukki laa daje woon bàyyi na ma du ko gëm ko loolu de dëgg la mu ne ko ñetteel bi nag bukki coow lee bëri waaye xiifoo de boo xiifoon dooma laaj dara da ngay tëb rek songo ma mu ne ko loolu moo gën a nekk dëgg nag kon lay moo moom moo ko musaloon yaakaar naa sax bu yowmal xiyaamee Sénégal yi bu leen yàlla mayoon parole ñu ci bëri dañ ci mën a génn ndax léeg leen nit def lu garaaw waaye boo ko bàyyee bu layee rek nga mujj jéggal ko moo nag yàlla nag nee foofu du ma fa jox kenn parole seen cër yi ñoom laay jox parole tànk yi laay introsé mu wax ma ñaata la dox ci lu ma gërëmut ñi affiché note bi loxo yi ñëw biir bi ñëw awra yi ñëw bët bi ñëw nopp yi ñëw su ko defee nag ñoo ñëpp seede moom la alquran ne al yawma naxtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima si yaksibuna waaye am na ñoo xam ne benn waay ju tag làmmeñ ne ne ma man daal xam naa li ma def garaaw naa waaye bu ma yàlla mayoon ma wax rek yaakaar naa daa ci mën a génn waaye foofa kenn du wax sa cër yi ñooy wax sa cër yi nga gënoon a fonk di ko bànneexal soo liggéey ñoo lay weer awra beeg bët yeeg làmmeñ yi ñu seet nag ñaata not yu bon nga am ci sa làmmeñ wu bon wi ñaata not nga am ci sa bët yi ñaata not nga am ci sa nopp yi ñaata not nga am ci sa tànk yi ñaata not nga am ci sa biir bi nga liir téere ba rek yooku ne yaa waylata maali hadal kitaab laa yugaadiru saxiratan wala kabiratan illa axsaaha su ko defee nga yooku te kenn doorul la mi ngi mel ni rek jamonoy examen yi étudiants yi ca université ca lycée ya dañuy xëy rek nañ ngi dem seeti résultats yi la wax dara duñ la bind lettre duñ la def dara dañuy affiché note yi rek waa ji xool rek yi rek affiche bi baaxul rek li ñu affiché ci moom baaxul rek mu yuuxu te kenn dóoru ko pourtant kii xool tamit li ñu affiché ci nodd yi mu liir ko mu baax ak moom mu joo mu kontaan ree dem ci waa këram yi gars yi arrosel ko bagam bi ak yi ci aju te pourtant mu ngi ree te kenn waxul ko lu ko neex kon àllaaxira tamit lépp noonu la mel léegi kon liñ ci déggee képp koo xam ne yàlla may na la nga jiite loo mën a jiite assemblée nga jiite réew nga jiite mbooloo mu nekk sa gannaaw muy ab quartier nga jiite da jiite maanaam benn mairie ci mairie ci mairie yi da ngaa jiite benn gouvernance li lay war booy def assemblée sa gaa yi nga ko seq bu waxtu jot julli jotee nañ bàyyi la ñuy def lekk dem julli ji moo xam conseil des ministres la bu jotee nañu bàyyi la ñuy def comme waxtu yu jot na do door a mën a taxaw ñëpp julli benn président jiite wala premier ministre war a ñu seet ku mën a jiite ñu julli su boobaa li ñuy wax dana am barke waaye julli bu xasee jot loo waxati du barke julli bu xasee jot loo liggéeyati du sotti ci yàqu rek la jëm kon lii Souleymane joxe yàlla gëdd mi ko jox mi ko jox gëdd gu toll nii ñu yàlla jox gëdd ñëpp bu ñu ko delloon Souleymane diina gi dana baax lépp dana tegu ci yoon waaye da ngay toog nekk ci dara waxtu jot ñiy wax rek continuer waxtu jot ñu nekk seen liggéey rek moo tax da ngay nasaka notti ba sotti dara du sotti lu baax tey bu subaa mu yàqu lu ko waral yàlla mi war a jiitu lañ war lañ jiitalut kon ku bëgg sa mbir baax loo mën a nekk su waxtu julli jotee la nga nekkoon yépp bàyyi ko léegi nag soo ko defee yàlla defar loolu kon Suleymaan a ngoog lee taxoon mu doon seet hut hut dara taxut mu ko nemmeeku muy pour mën a xam rek booba ndox mu koy mën a indil pour mu war a jàpp kon gis nga fi ñu tegoon diide léegi loolu lay wax si nii moo tax mu ne wata faqada nemmeeku na moom Suleymaan a tayra njanaaw ya fa mu ne maa lii ana lan mooma ñeexal laa araa gistuma alhudhuda Musaa njubuli mi moom de gisuma ko am kaana ndax dafa nekk minal xaay bi na bokk ci ñu fàdduña bu ñëwee de li wér ta ban na uazibannahu dana mbugal ko azaban mbugal shaddan mu tar aw la asbaxnahu wala ma rendi ko aw la yatiyani lu dul mu andil ma bi sultaanin ci lay mu bindin ngay aji biir de lii rek moo ko mën a musal Moussa Ndioubu li mu ñëw na nuyu na Souleymane sukku doon léegi daal tabaarakallaahu Souleymane raay ko mu wax ak moom nangam ak nangam xaw na ko sax waar ne ko maa ngi tudd sa nguur gu màgg gi nga xam ne takki ndeer rek la ci nguur a ki la ko may Souleymane xaw a tiit bay lox ngir lim ko wax mu raay ko nag léegi nag door koo nag laaj fan nga nekkoon nag loolu lay wax si nii la muy wax si nii mu nekkoo ko fu nekkoon la koy wax moom la wax ne fa makka sa sax na ñenn nga jàng fa makku sa sax na ki sax nag ni njàngin wi wuutee ni la damir ji wuutee fu ñu koy delloo ñi dañ ne damir ji Souleymane lay dellu ñenn ngeen ne déedéet damir gi ci Moussa Njubuli mi lay dellu moo tax mu ne fa makkasa sax na moom Moussa Njubuli ma xayra baidin jamono joo xam ne yàggut yàggut dara rek la ñëw fa qaala mu ne a axattu man de peeg naa bi maa lam tuxib ci loo peegut li nga nekk buur yëpp ilif adduna bi ni ngi nekk sa gannaaw maa ngi la yëgal ne xam naa loo xamut eh, loo xam ne peeguloo bi ci moom wa ka dikkal naa la min saba in bàyyee ko réew mu ñu tuddee saba bi naba in ànd ak xibaar yaqinin bu wóor yàlla dëgg-dëgg yàllaay karim Suleymaan ak xam moom bu bëri baag dégg waxi picc yeeg ilif àdduna beeg am na lu xew ci àdduna bi loo xam ne presque soriwul ko distance boobu fi fi lii xewee ak foofa du sos du sori daanaka 60 kilomètres te loolu kumpa la Suleymaan xamu ko ba tax na picc mi moo ñëw di ko ko xamal kon nga xam ne daal yàlla kenn ku ne ak lim la may ci xam-xam lim la may ci xam-xam soo fekkee keneen ko lim ko may rek nga xeeb sa bopp moo tax yàlla di wax ne wa fawqa kulli dhi ilmin alimun borom xam-xam boo gis muy bàkk ku ko ku ko gën a xam mi ngi taxaw kon gis nga Souleymane picc taxaw tey di ko waxal comme ne Omar ibnul Xataab mii nekkoon amirul muminina jàppoon ñu jàpp ne moo ëpp ñëpp xam-xam taxaw na wax jigéen gàgganti ko bi mu bëggee wàññi can yi ne dañoo waral a limiter can yi ci ñeenti téeméeri dinaar ci la yonent bi takk soxna yi ci la maye doomam yi benn jigéen taxaw te min bar ba mu yéegoon ne yow yàlla jox ñu nga bëgg ñoo xeeñ yàlla wax ne bu ñu joxee ihdaahunna qintaaran da ngaa xam qintaar ñaata la Omar wàccaan min barba ne ko toskare ñeel na Omar jigéen sax gàgganti na ko kon ñoom bu leen xam-xam dabee rek dañuy taxaw yàggul dara nag picc ñëw na wax ko ko ci ñëw na ne ko maanaam peeg naa loo peegut def na ñu tuddee maanaam tibaaku sal bi ci xam-xamu balaaga peeg naa loo peegut maa ngi bàyyeekoo fu ñu tuddee saba i waaye ànd na xibaar boo xam ne bu tàng jir la te bu wóor naññ la xam naa bu doon léegi ñu ne xibaar bu wér te maanaam du sori loola ba mu ne nag maanaam wa jituka min sabay bi naba in yaqin def na bi maanaa li ñuy tuddee ci balaaxa jinaasu latiif ci diggante saba yi ak naba yi alquran dafa neex usloob ni mu koy waxee léegi nag lim ko indil la bëgg a wax suleymaan ne ko lan la léegi mi ngi koy wax mu ne ko inni naka man wajattu fekk naa imraatan jigéen tam tamlikuhum boobu dana buuru leen wa utiyat joxeef na jigéen nga min kulli shay'in ci lépp lëf wala ha aji nekk la ñeel jigéen ga arsun gàngu naay azimun gu màgg de wax na jigéen ga lam fekk saba i ca yaman wax na ko bi maanaa eh, mbiram dundinam ci àdduna Moussa Njubuli mi maanaam journaliste la boo xam ne ku mën a topp xibaar ba mu sës la jox na ko ñett bi ci njëkk mooy fi ma demoon muy saba i seen péris seen présidente ba jigéen la jigéen na leen xilif muy benn mu ne ko jigéen googa tamit lépp lu nguuram soxla ci wàllu matériel ak ci wàllu armée am na ko muy ñaar ñetteel ba tamit am na gàngunaay gu mag gu muy toog walla walaha arsun azim léegi nag mu des nag mu wan koo détaayal jigéen googu lan mooy pas-pasam ci wàllu ngëmam ci wàllu diine kon wax na ko wàllu dundinam ci àdduna lu ci des nag foog mu leeral ko lan mooy pas-pasam ci wàllu diine moo tax mu ne ko wajattuha fekk naa jigéen googa wa qawmaha ak nitam ña yasjuduuna ña ngay sujootal li samsi jant bi min duuni laay bàyyi fi yàlla wa zayyana rafetal na la lahum ñaar leen seytaane saytaane amaaluhum seen jëf yu bon yooya saytaane rafetal na leen ko mel ni lu baax fa sadduhum saytaane dëdduloo na leen ani sabili walis yoon wu jub wi fa hum ñoom de laa yaxtadoon a gindee ko huñ de awalaa yasjudoo lu tàngi su jootal lillaahi ñeel yàlla alasi yàlla ma nga xam ne yuxruju mooy génnee alxaba ndaxañ teef fi samaawaati juróom-ñaari asamaan ndaxañ teefu juróom-ñaari asamaan mooy taw yàlla denc taw ci kaw wàccee ko wal ardi ak juróom-ñaari suuf la fa yàlla denc mooy pepp bi nga xam ne danga ko koo ji gannaaw bi mu tawee mu saxal ko wa yaxlamu moom yàlla moom moo xam maa tuxfuuna li ngeen di nëbbu yéen ñëpp wa maa tuxluun ak li ngeen di feeñal de yàlla moomu allahu mooy yàlla laa ilaha amul benn buur ilaahu wa ndere moom rabbul arsi mooy borom gàngu naay ga al azimi gu màgg ga de kon gis nga Moussa Njubuli mi définir na la Souleymane dundinu buur ba ci wàllu addunaam waaye wax na ko ngëmam ci pas-pasam ci wàllu diineem boo gisee mu wax ko lii li ko waral mooy Moussa Njubule bi mu ànd ak Souleymane noonu rek dane woon day naaw di seet yaatuwaayu àdduna ñi mu naawee noonu rek seen benn moromam Moussa Njubule tamit ci picc mu ne ca moromam yi rek lay dal inna tuyura ala ajnasiha taqa'u mu dem rek jubali moromam Moussa Njubulem ma ñu tal dal ci benn garab commencé nañ waxtaan musaa Njubulem Souleymane ma mi ngi tuddoon Yaafuur musa Njubuli moom mu fekk mooy Moussa Njubuli waa saba yi kooku ma nga tudd ñu toog nag commencé waxtaan Moussa Njubuli ma mu fekk si laaj ko ne ko yow foo bàyyee ko mu ne ko maa ngi bàyyee ko ci yonantub yàlla ba ca Faris bilaadu Perse waa Perse benn buur ak ab yonantu am bu màgg mu ngi tuddee Souleymane foofa laa bàyyee ko Njubuli moomu dégg xam na xibaaru Souleymane mu ne ko yow nag mu ne man maa nekk fii ci Yaman moom nag dafa ñëw mu Moussa Njubuli mu rattax làmmeñ la dafa ñëw ci kër gi tay tay rek li xew ci réew mi yëpp mu waxal ko ko léeg nga ñëw ci kër rek fekk fa koo xam ne làmmiñam dafa rattax li xew ci kër gi yëpp dana la ko wax boroom kër gi soxna yaat lépp wala nga ñëw ci parti bi dugg bees gars yi wax la nga fekk ku rattax làmmiñ li xew ci parti bi yëpp mu wax la ko nga ñëw ci ministère bi noona nga ñëw ci lépp nit ñëpp noonu lañ man rek ñu ci bëri léegi nag kii commencé na ko tari li xew ci nguur gi mu ne ko fii ma toog ci yaman ki leen jiite seen présidente bi jigéen la Balqis la tudd waa ji enregistré jël na son bi mu ne ko gis nga kooku nguuram gi lu rëy la gàngu naay gi muy toog rek yaatuwaay bi juróom-ñett fukki xasabu la gudd ñaay bi nii tamit juróom-ñett fukki xasabu la pour nag yëkkati ko waaye bi jëm kaw asamaan juróom-ñett fukki xasabu la nit moo xiir boo demee ci jalaal ñeen fukki xasabu la wax boo demee ci ruuxul bayaan wala nga def ki tafsirul maraaxi juróom-ñett fukki xasabu kon gàngu naayam gi muy toog mu ne ko tamit wurus lañ ko liggéeyee ak peme yoo xam ne ay zabarjat la ak yaaquut moom ci lay toog mu ne ko tamit bu nguuram gi lu rëy la moom ci boppam rek am na ñeenti téeméeri gouverneur moom la am gouverneur bu ci nekk yaa ngi yilif fukki junney soldaar ak ak ak ak ñaar moom réew la moo xam ne da ko liggéey comme jigéen la du wóolu lu ko song moo tax ku màgg rek wala mësoor rek dem armée comme ni France di def moo tax réew ma yëpp parce que militaire lañ noonu la doxalee nguuram gi mu ne ko bi ci tegu tamit ñetti téeméeri ministre la am kon nguur ga rëy na ministre bu ci nekk tamit yaa ngi yilif fukki général ak ñaar général bu ci nekk tamit yaa ngi yaa ngi yilif fukki junne soldat ak ñaar waa ji enregistré mu ne ko kon nguur gi rëy na mu ne ko tamit gis nga kii fi muy tëdd balaa tëdd juróom-ñaari néeg ñoo koy wër dana tëj juróom-ñaari buntu door a dugg néegam buy dugg tamit day jël caabi yooyu yëpp njege rof ko ci ron njegenaayam tëdd ci njegenaay bi jant nag lëggëm moom lay jaamu kon wax na ko mbiram àdduna mi ngi wax ci wàllu diineem mu ne ko jant lëggëm def na benn fenêtre bu yaatu muy tolloog fi jant bi fenkee bu nelawee bu jant bi tàppee ci kawam rek mu xam ne bër set na rek mu jug su jootal jant bi rek sol ay yëreem dem liggéeyi loolu lay def loolu mooy loolu mooy dundam moom nag mënutoon na moom ak nitam ñi dem jaamu ji ki bind jant bi di yàlla ndax li leen jant li leen yàlla manal jant bi mënalul leen ko Moussa Ndiour leen mi nga waaraate ndax kuy ku nekk ak waaraatekat bu yàggee rek nga mën a waaraate moo tax mu ne ko jant bi mënul leen a gindi da leen di sànq te yàlla mun da leen di gindi jant bi mënul leen a jox ndox mi ñuy soxla te te yàlla mooy joxe ndox mu bàyyee ko ci kaw jant mënu leen a dencal lu ñu mën a jariñoo ci biir suuf te yàlla moom moo leen mën a dencal seen gàncax yooyu ñu dugal ko ci suuf ci diggante jiwu wi ba ñuy dem benn leket lañ yóbbu woon waaye bi ñuy ñib si ñu ngi takk ay sareet ñuy jël ay camion ki leen ko mën a dencil sekkil ko mooy yàlla loolu jant mënu ko jant mënu lu leen wax leen li maanaam xam li nëbbu ci ñoom ak li feeñ ci ñoom loolu kenn ko xamu yàlla gàngu naayam muy bàkku ba tax tey muy jaamu jant jàpp ne moom jant rek ko attan yàllaa ko ëpp gàngu moo tax mu ne allahu laa ilaha illa huwa rabbul arshil azim lii lépp nag waa ji waxal na ko ko léegi nag Moussa njubbuli mi jël na son bi journaliste la woon waaye amagul image yi Xufayru ne kon nañu wër ci réew mi ma wan la yaatuwaayu réew mi pour nga mën a jël image bi nga yóbbul ko sa waa ji mu ne ko non fu ma ni waxtu julli waa ngi bëgg a jot te xam naa ne dana ma soxla maa war a maa war a wane forage pour jinne yi mën koo gas ndox génn ñi war a jàpp mu ne ko lii nga koy defal soo ko ko yóbbulee moo ko gën a lam ne ndax julli ga rëy na loolu waaye ci ci boppam ak boromam la yem te lii nag li ci aju nii ñëpp nekk ay yéeféer nga xam li fi nekk joxe ko xibaar mu fexe ba ñoo ñëpp tuub dugg ci lislaam di julli moo ëpp doole julli ga mu ne ko wax nga dëgg bokk nañu wër nag xool na lépp am na son bu leer naññ am na image boo xam ne bu leer naññ la ñëw na nag andil ko Souleymane léegi nag andil na ko Souleymane Souleymane nag léegi kilifa la bëggul surax kilifa nekkul koo xam ne boo juumee ñëpp juum soo amee ndam ñëpp am ndam boo amee gàcce ñëpp am gàcce donte mënuñ la koo wax booy dugg da ngay dugg ci lu leer kenn du ñëw wax laay wax rek nga dugg ci da ngay gëstu wax ji seet ko ba mu leer moo tax kilifa dëgg duñ la wax dara rek nga tontu ke saasa da ngay juum buñ la waxee rek dara ngay wax ne waa dégg naa ko danaa ci xelaat may ma féeg nangam balaa mat ñaari fan benn fan nga jox ko rendez-vous nga seet ña nga war a toog wax ak ñoom ca loola su boobaa bu buñ la joxee xelaat rek boo boo ca tegoo man du am problème sëriñ Abdoulaye dafa daan wax ne bala maa wax wax ak ñëpp kon kilifa dëgg balaa wax dafa war a wax ak ñëpp boo defee noonu rek doo juum kon ma jaaraat ci door a wax nag ne bi Souleymane vérifié xibaar bi wane ne xibaar dañ ko war a vérifié léegi nag euh, euh, naka la def ba mën a vérifié xibaar ba mu leer xam ne lim am lu leer naññ la moom lay wax si nii moo tax xaala Souleymane ne ko sa nansuru ñu xool asa daxta ndax dëgg nga ci xibaar bi nga joxe am kunta wala dangaa bokk minal kaasi bi na ca way nar danaa seet li nga joxe wér na wala wérut bala ma caa dugg ni ma koy seetee mooy idhab yóbbul bi kitaabi sama lettre bi haada bii fa alqihi na nga ko sànni ilayhim jëm ca ñoom su ma ta topp gannaaw gi na nga dëddu anhum walis leen vanzur nanga nga xool maasa yarjiuna naka lañu la ñu dellutee de naka la eh, eh, maanaam réaliser li ma leen jox naka lañ ko gisee kon gis nga Souleymane homme d'état la ba gis nga jàngal na Moussa Njubuli ni ñuy yóbboo leetar ñu bari xamuñ nu ñuy bindee leetar ñu bari biñu mënee bind leetar xamuñ nu ñuy joxe leetar kilifa xam nga ñu yónni la jox la leetar ne demal nga yóbbul ko kilifa gi nga ñëw jox ko kilifa gi taxaw ci kanamam jël say bët di maanaam di ko xool àndut ak àndut ak teggiin àndut ak yar kilifa boo ko joxee leetar da nga koy wan gannaaw xaw du dumoo yu tuuti buur yi noonu lañ leen joxe leetar bu dag bi ñëwee jox ko leetar rek day arrière lu ma 3 mètres wala 4 wane gannaaw su boobaa benn mu woo ko jox ko tontu muy kàddu yum yóbbu wala mu bind leetar jox ko ne ko demal nga yóbbu ko waaye doo jëlal leetar rek jox ko waa ji taxaw ne xujji jàkkaarloog moom loolu duñ ko def moo tax léeg-léeg nit ki bind demande pour sàkku ñu jël ko mu naan bind naa sama demande bi waaye kenn tontuwul ma mën naa am na binde demande moo baaxul bind demande yombul léeg-léeg tamit nga bind demande bi mu baax fekk ni ko déposé baaxul amuloon numéro fi mu war a jaar ak jaar yëpp warul faa jaar fa su boobaa tamit day am problème wala amul adresse adresse bu leer Souleymane nag léegi jàngal na Moussa Njubul ni ñu war a joxee leetar joxal buur bi leetar bi rek nga xaw a du wan ko gannaaw su ma tawalla anhum fanzur maa zaa yarji'uun léegi nag Moussa la ngi dem pour war a yóbbu leetar bi léegi nag Moussa Njubul mi dem na yóbbu na leetar bi bi mu ko yóbboo nu mu ko joxe buur bi ñetti wax la ñenn ñu ne dafa fekk buur bi am naag ministre yi conseil de ministres ñëpp toog ministre yëpp toog nañ war ko jetti téeméeri ministre wër taabul ji musa Ndioubb li mi naaw ba dugg ci biir sànni leen leetar bi ci biir palais bi ci kanam guur bi la ko sànni buur bi ubbi rek xool leetar ba rek tiit ne yaa ayyuhal malawu inni ulqiya ilay kitaabun karim leetar waa ngi dañ nga ko jox léegi ñenn ngeen ne déedéet bi mu tëjee juróom-ñaari buntu yi ba dugg ci biir néegam moom jël caabi yi dugal ko ci ron njege naa yi tëdd ca tëddee taanaay ci la Moussa Ndioubb li mi dugg ci biir fenêtre bi fekk ko fi mu tëdd mu sànni ko leetar bi mu dal ci biir mu dal ci baat bi mu tiit daal di jël leetar bi door a woote conseil des ministres nag pour war a wax leetar bi lu ñu ciy war a jàngat. ñenn nga ne déedéet fenêtre boobu mu ubbi woon di xaar pour bër set moom la Moussa Njubali mi ñëw rek delloo ko ci mbagg yi delloo wàll rideau ba ndaw si keroog dafa tëdd ba biddanti di xaar jant bi fenk fekk fenk na bu yàgg mais fenêtre bi moo ko baare ak rideau yi bi mu toogee nag heure bi mu doon jug passé na. muy seet ndax jant bi fenkul noona muy ubbee fenêtre bi rek foofu la Moussa Njubli mi profité sànni ko leetar bi lu ci mun dee am daal jot na ca leetar ba ndaw si nag moom ci démocrate lay dund woo na mbooleem ministre ya ne leen nag dañ maa joxab leetar kaay leen ñu waxtaan ci leetar bi ndax musuma yore benn mbir musuma cee dugg lu dul dañ ci dañ koo discuter mbir mi ci taabul lañ ko teg waxtaan ci moo tax maanaam dictateur baaxut saa yoo ko nekkee jiite sa réew ci loola ci da ngay nekk ko da mujj rek alku ci programme rek ngay ne ñi ko fi ne am dañu moo tax gis nga ko ndaw si li ko yàlla jox nguur li muy rëy rëy yëpp balaa def dara dana waxtaan ak nit ñi ndax nit ñi koo waxtaan ak moom rek mu ne ah man waa ji xëy xëybut sama xalaat boole na su ko defee wane lim man waaye soo jëlee sa xalaatu bopp boole woo kenn ki dafay wax ne xalaatu bopp moo ko doy nangam ak nangam nañ ko bàyyi fa ba sax gaa yi dañ lay gën a utal ay ndëgg rax nga gën a daanu moom la ñuy bëgg moo tax bul xeeb xelaatu kenn bul xeeb xelaatu jigéen yonentu bi soxla na ko laaj na ko bul xeeb bul laaj bul xeeb xelaatu xale yonentu bi soxla na ko laaj na ko bul xeeb xelaatu mag bul xeeb bul xeeb benn xelaat am na ci mbir yoo xam ne bu daanoo ci sa kaw jigéen rek moo la ci mën a génnee am na ci mbir yoo xam ne xale rek moo la ci mën a génnee am na ci mbir yoo xam ne mag rek moo la ci mën a génnee moo tax yonentu bi daana wax ne ñaara ngi nii ku ko def sa dund doo am problème maa xaaba man istaxaara wala nadima man istasaara koo xam ne balaa dugg ci dara def listixaar boobu yonentu bu jàngale ci ñaari rakkaaya fatiha qul al na fatiha al ixlaas ànd ak njàpp tëdd fu laab jàng ñaan nga door a xam li mbir mi wan waaye day fekk tamit nga xam ni ñuy fire gént de boo defee listixaar te xamoon ni ñuy firee gént tamit du sotti genn góor gu tedd di nga ko tudde Baye Omar Sakho dëkkoon fële ca Fass Thiaxo ndeysaanam da waa ji benn taalibeem dafa am ak problème ak soxna sax lijjanti lijjanti waa ji daal mu të mbir mi tàng lool jafe lool mu ñëw ci sëñ bi ne ko defal ma ci listixaar soo ci amee yaakaar ma continuer soo ci amul yaakaar ma toog sëriñ bi def listixaar ne ko li ma gis daal am naa ci yaakaar bul bàyyi jàppal dana baax ca ëllëg sa rek waa ji ñëw ne ko li nga ma doon def loo li maanaam soxna si ma doon def listixaar ne am nga ci yaakaar tas na ko wax nga musiba mu ne ko man boo gisee man la am naa ci yaakaar bi ma defee listixaar ba tëdd damaa gis ñu yëkkati benn euh, takkaayu or voyet yooyu ñu koy def di ko joxante ma xam ne loolu góor a koy joxe jigéen a koy jël te loolu ci sëy lay am te day dëgër mu ne ko boo ma waxoon loolu kay du ma ci def dara man ba ngay wax loolu may ñibbi rek lañ ma jox sama or yi ma ko joxoon sëy ba tas mu ne ko mënoon nga maa wax loolu sama waxoon loolu du ma ci sonn delloo nañ ma la ma ci defoon bu yàgg góor gi nag ci lu ñuy gis luñ ko xam daal bàyyi naa maam alaaji Maalik ku mos a ñëw ne ko damaa bëgg nga fanaanoo ma mu ne man wóorul ma danaa fanaan bay mën a fanaanoo kenn moom loolu doon def ci dundam kon leetar baa ngoog sànni na ko wax na ca moom lay wax nii moo tax mu ne xaalat wax na moom ndaw si ne yaa ayyuhal malawu ee yéen mbooloo mi ya naka man ulqiya sànneef na ilay jëmee ci man kitaabun leetar karimun bu tedd ndax tampon ba tampon nu bu watu la leetar ba mooy innahu naka lañ bind ca leetar ba moo tax mu góoral ko min suleymaan mi ngi bàyyi ko ci suleymaan wa innahu naka lay mbir tey mbir bisimillahi rahmaani rahim ci laa leeni woo allah taaloo bu leen rëylu àlla ye sama kaw waatoo nii dikkal leen ma muslimiina mbir mi ngeen di way xommatu de lii mooy leetar bi ndaw leetar bu gàtt moo tax bind kilifa leetar dañuy xam nu ñu war a bind kilifa leetar bëgg a bind président leetar wala nga bëgg bind ministre bi leetar wala député bi wala président assemblée bind ñaari paas amul cot bu nga koy mën a liiree benn phrase rek doy na gis nga lettre bi li muy gàtt li muy bëri bëri benn benn benn fii rek la benn bind rek la ci maanaam li ñuy sàkku ci lettre yi mi ngi ci xam le na fi mu bàyyeekoo xam le na fi mu jëm xam le na tamit lan mooy objet bi tax maanaam mu bind lettre bi ci yàlla laa leen di woo yàlla mu mooy rahmaan li ngeen bëgg ci àdduna moo leen ko mën a jox yàlla mu mooy rahim li ngeen bëgg ci àllaaxira moo leen ko mën a dencal bi ci tegu nag li tax ngeen bañ ko lépp mooy ak rëylu seen rëylu googu ak seen gàngu naay gi ngeen di bàyyi te ñëw topp ma ñu ànd jëm ci yàlla ala taala alayhi wa tuni muslimina ndaw leetar bu gàtt fasaa kon fokk nit ñi bindee leetar du ñëpp ko man mën a jàng rek taxut a mën a bind nag leetar baa ngi nii buur bi nag woote na conseil des ministres ñëpp teew mi ngi wax nag léegi leetar bi ñu ko dikkal lu ci seen xalaat xaalat moom ndaw sa wax na ne yaa ayyuhal malawu yéen mbooloo mu tedd mi aftoo nii fite leen ma fii am ci sama mbir maa kuntu musuma nekk xaatixatan di aji dogu amran ci mbir hatta tashhaduuni ba te ngeen teewe ma de mbir ñëwal dama kaay leen ngeen wax ci leetar ñu indil dama ko wax naa leen ko léegi nag armée baa ministre yëpp xoolal li ñu ko wax xaaloo ñoom ñu ne ko nax nu ñun de ulu quwatin borom kartan lañ wa ulu bësin borom mi ngànnaay lañ shadidin mu tar li ci des nag wal amru mbir mi yëpp léegi jëm na ci yow yaa yore dara ñër moo bi fanzur yi xoolal nag maza ta'murina loo ñuy digal rek loo ñuy digal ñu def ko parce que nag lii lañ mën a tontoo jigéen dafa gaaw a tiit jigéen dafa gaaw a jaaxle jigéen dafa néew doole te yëg na ne yónni nañ ko leetar boo xam ne dañ mel dañ koy xaw a maanaam euh, xuppu xaw naa kon dana tiit ku tiit nag xaw a di fokk góor gu am kartan mooy mooy nekk ci kanamam ne ko pare nañ ngir joxe suñ bakkan pare nañ pour lu place bi laaj lu laaj rek ñu def ko suñu alal du ko fekkee suñ bakkan duñ ko dekk duñ ko fekkee loolu moo koy dalal ko moo tax mu ne kon nax nu uloo quwatin wa uloo basin shadid wax naa la armée bi nekk ci nguuram gi waxoon naa la ko ci ministre yaak li ñu ëmbu gouverneur yaak li ñu ëmbu moo tax ñu ne ko nax nu uloo quwatin wa uloo basin shadid kon nag mbir mi nii rek la mën a demee xam nga lii lépp jigéen gaaw gum gaaw a tiit jaaxle gee tax sariya ne bu la yàlla joxee soxna na nga leen yemale ci jox leen ay aye même donte soxna si dafa yor régal tamit foofu nga war a aye fan nga fanaan fa même bu feebaree wala mu am doom ba mënoo joteeg moom tamit sharia sartaalu jotee ga mais fanaan ngi la wax lu tax dañoo gaaw a tiit dañu gaaw a jàq gaaw a teqalikoog seen sago tiit googu nag bu amee ponkalam góor moo xam ne mi ngi ko ëmbal cofeel ak ñëwanti nekk ci gannaam dootul tiit dara moo tax mu ne kon lu mu métti métti jox leen seen aya yi donte la ñoo yore reegal wala ñu yore deretu gësin wala lu leen mën di gaar jotee gi nag moom du sarta mi ngi aajowoo sa man-man ak sa kartan loolu noonu la ko sharia gisee léegi nag moo tax jigéen gi comme jaaxle na lii rek la ko góor ñi mën a tontu waaye gis nga ko tamit bu leen jigéen gi tontoo rek yey leen li ko waral bu jigéen gi tontoo yay leen yàlla dafa bindee góor mu yore muy safara tàngooru safara la yore gaas la jël jigéen def ko muy frigidaire jublu si ne bu ji bu góor gi tàngee ci biti bu ñëwee na ko soxna si dalal bu tàngee moo xam ñàkk dépense la ndax am na ñoo xam ne bu ñàkkee dépense rek naqari deret bu ñëwee ci kër gi rek xëpp la jeex suñu amee problème ci mbedd dama ñëw tuur ko ci kër gi wala ñi tuur ko ci njaboot gi yàlla nag ne jigéen ñi ñooy félicitaires yi ñoom ñooy dalal góor ñi nga xam ne jikkoy gaas la ñu wareen tàng rek boo tey boo boo yoroon ñaari njaboot góor ak jigéen kenn na wax sa papa wax papa sa papa lu ko naqari góor ñaay njëkk a jug na dañuy jaay suñu bakkan kii nangam ak nangam dañ koy rey buñ ko reyee teg seen bopp coono dee ci kaso gi suñ ko reyee rey maanaam yokk seen papa coono ci ñàkk dépense buñ ko reyee yokk jigéen ñi coono ci maanaam yóbbu añ yi heure bu ne yaa ngi yóbbu añ ak reer ndax boo amee ku ñu tëj rek am nga coono su ko defee kon waaye buy jigéen ñi da ngay dégg rek ne ko papa comme saaga wi taqul la fenn muñ ko rek wala bàyyi ñu wax ak moom rek waaye xeex ak jël ba kanam bi loolu du xalaat jigéen toujours day seddal moo tax yàlla tuddee ko ne moom maskanatu la aadama bi mu ko bindee ko wax uskun anta wa zawjukal janna ba mu tuddee jigéen ñee góor ñi lu wax dafa ne li taskunoo ilayha pour ngeen mën a dalee ci bu ngeen bu ngeen bu ngeen mën a dalee ci tabaarakallaahu moo tax guddi jigéen dafa yore melo guddi ji góor yore melo bëccëg xam nga buñ ne bëccëg rek bëccëg dafa niru safara guddi dafa niru aljana soo ne bëccëg sa xel daj teqalikoo ak kër yi teqalikoo ak néeg yi sàng sàngeekoo mbàjj yi dugg ci marché yi ñaq tabaarakallaahu ngir mën a ñuqi ñu la laajee nga nekk ci coono rek loolu mooy safara la xeetu safara la safara coono la guddi nag moom mooy waxtu delluwaat sa njaboot sa njaboot gi wër la ñëpp tàpp la tabaarakallaa nga nekk ci dal nekk cig noppalu loolu dafa niru aljana niru gi bëccëg niru safara tax et toujours yàlla di gën ci bëccëg niru guddi niru aljana tax yàlla di gën ci guddi fële wa duhaa fee mu ne tamit wa layli kii safara la kii aljana la moo tax tamit jigéen moomu niru guddi ji góor ñëw niru tamit bëccëg moo tax yàlla bu ñu tuddee góor tudd jigéen tudd guddi tudd bëccëg wa layli iza yaxsha wan nahaari idaa tajalla kon ñooy ànd su ko defee kon nag wa maa xalaqa zakara wal unsa ba mu waxee loolu lu mu ca teg maanaam góor ak jigéen rek la ca teg kon wal layli idaa yaxsha wan nahaari idaa tajalla wa maa xalaqa zakara wal unsa kon kii guddi la kii bëccëg la kii safara la kii kii aljana la kon noonu lañu ñu àndee foog kenn ku nekk da ngay àndal pour mën a mottali sa morom moo tax gis nga ñoom tàngoor lañ wane doole lañu wane waa ji ne leen bokkuma ak yéen gis-gis taxawal leen nga déglu li ndaw si wax borom xel la xaalat ndaw sa nee na inal muluuka naka buur yi ida daxaloo bu ñu duggee xaryatan dëkk af sa afsaduha danañu yàq ko wa dana ñu mujjal aisata ahliha tedd ak ñooñ dëkk tedd way tedd yi ñooñ dëkk ba azilatan ñi di way torox wa kazalika naka noonu tamit yafaaluna la ñuy def toujours de ni ko sëriñ bi firee keroog mu ne ko buur fu ñu dugg yàq ko rawatina ci guerre buñ duggee ci guerre bu guerre ñëwee xas dugg ci réew ñu ñàkk ak ñi am ñëpp danañ xiif ndax boo amee doo am foo jëndee ji xale yi seen njàng mi dana yàqu bakkan yu bëri danañ ca tuuru marché yu bëri dana ca jaaree tëj lu boobaa nag kenn rek moo ciy perte kenn moo ciy bénéfice wu ki amoon day gën a torox ndax li mu amoon da koy perte sa oto bi mën nañ koo fekk toj ko sa magasin bi mën nañ koo fekk tijji ko sàcc bagage ke ne ki amutoon dara nag moom mën na caa profité fexe ba amee ca dara moo tax koo fekk ku bëgg guerre rek mooy ko amul dara moo tax kon soxna si ku am xel la moo tax mu ne kon loolu d'accorduñ ci waaye tamit nga déggee ci tamit ni ko sëriñ bi firee wane ne politiciens yi fu ñu dugg yàq ko boo duggee ci politique yàlla joxoon la alal soo amul sens nga ñàkk ko su la fekkoon nga am daraja soo soo moytuwul sa daraja sippeeku nga ñàkk ko bu la fekkoon nga am diine soo moytuwul nga ñàkk sa diine ji politique daal ki mu ki mu jik ci suñu réew yu mel nii mooy koo xam ne làmmeñam wu rëy la yore te man koo ñaawal yore benn cartable su ko defee lu ko neex wax nu ko neexee tamit mu waxee ko danañ dem ba teral ko ngir ragal làmmeñam wax waaye boo ci dugalee sa alal ñàkk ko boo ci dugalee sa boo ci boo ci duggee daraja da nga gotteeku boo ci duggee sa diine boo amul chance nga ñàkk ko moo tax mu ne kon innal muluk ida daqaloo qaryatan afsaduha kon nag léegi buur bi gis nga ko moo leen ëpp xel wax na waaye nag mu des pexe wax na leen lii gars yi d'accord nañ mu des nag pexe te jigéen ñi ñoo am pexe lañ pexe mi mu ne bàyyi leen ma ut kado koo bëgg koo teral da nga ko tëral koo bëgg a koo bëgg a tëral bul sonu teral ko rek su ma ko yónnee ay kado ci xeeti teraangay alal yu bari su nekkee buur fi li muy mën a mujj rek mooy dañuy fayloo impôt an mu jot ñu fay impôt bu ñu ëppee doole jarul ñuy xeex xeex daal jaru ko na ñoo fay impôt te ñu bàyyi ci suñu nguur gi ñu nekk su fekkee yonentub yàlla la nag du nangu cadeau du nangu kenn nger ko ni muy def rek kon caaxaan yi neen dina ñëw ba jëlee ñu ci kon nag la fay sës rek mooy dem jébbalu ji ñaar ñi nag mënuma koo xam lu dul ma jël ma jël cadeau yónnee ko ko bu fekkee nitu àdduna la day jël kado ba bàyyi ñu ci suñu caaxaan yi buy nitu yàlla dañuy delloo kado ba jële ñu ci suñu caaxaan yi indi ñu ci dëggam gi kon li ciy déggee nitu yàlla warta nangu kenn nger ko nitu yàlla nekkab sëriñ bul nangu kenn nger la bu la kenn nger ci kaat kaat bu la kenn nger ci jox la ay cent million ki cinquante millions li la yàlla defal jaarale ko say maam ko gën a foor li la yàlla defal jaarale ko say maam mooy yaakaar te àdduna li ko tax a yaatu yëpp mooy yaakaar soo fii dund yaakaaratoo dara kenn yaakaaratul la deega sooy boo tàggee sa bopp moo tax xukkamaa bi dañuy wax ne maa adyaqal umru law laa fusxatul amal dund moo kat bu taxutoon nag mbébét waaye li tax àdduna yaatu yëpp mbébét yi rek ak yaakaar yi man de maa ngi bëgg jàng su ma mokkalee alquran bëgg naa jàng xam-xam su ma ci bàyyee ko bëgg naa dem réew ma Italie dem liggéeyi su ma ci bàyyee ko bëgg naa takk soxna su ma ci bàyyee ko am samay doom yi nii bëgg a yaree loolu yëpp ko fekkeem déet mais yaakaar rek yaa ngi yaakaar jël sa tool ut jiw yaa ngi koy denc xam nga dañ la fekkam déet nga ñëw bu paree bëgg naa bay damay jël ñàngami surga wóorul la bëgg naa jàng maanaam ci université bi bii laay tànn matière sangam su ma paree lii laa bëgg a génn ndax da ko fekkeem déet waaye yooyu moo tax àdduna bi gudd bu taxutoon loolu rek àdduna xat yow nag sa maam yi nañ la ku la gis yaakaar la ku la séen 3 mètres sànni ay dàllam te pourtant mi ngi dàll mën na laa dàq jaamu yàlla mën na laa gën yo jox la ñaari loxo sa loxo bopp bi mu tolloog yow ak sa loxo maam bi mu la dolli loolu teraanga la beneen bi tamit duñ ca yem nga woote liñ doon dajale at mi yëpp ci daayira yi at mi yëpp liñ doon dajale ñu boole ko indil la ko fi nga toog boole ko grand sonn lool bëgg laa gis njëkkati loolu lépp jox la ko joxoo kenn paas loo kenn yére ñoom ñëpp sukk seen kanam luñ bëgg ñu ne tafli ñu tafli ñu waaye nga ñaan la ngay ñaan tafli leen ñi raayoo ko te mbedd mi koo dañee tafli ko mu xeex ak yow lu tax nga may tafli ku ne dégg nga ko dafa néew tafli ko jàngal Alxuraan kon li maam yi liggéey doy na de teraanga jun bëgg mën nañu koo mënal léegi nag boo ko demee bëgg koo uti feneen fu dul foofa ñooña seen bopp mënu luñ seen bopp dara ndax ñoom buñ bëggoon a dagale junney nit ñu am fulla dañ joxe paas danañ leen utal yére ñu sol bala ñoo am ku leen tàccu bu demee ba gars yi bala ñoo ñibbi dañ leen yeewi te bu mbir ma xawee kii sax gaa yi buñ présenté bañ gis leen rek daw nañ yolleeku gars yi ñëw mën a toog ñetti fan ñeenti fan feeg yow kenn du dem kon dama ne li ñu maam yi fàggul doy na sëkk boo ko dugalee ci wàllu politique dugal ci lu ca bokk rek mu yàqal la yàlla ñu ci yàlla musal moo tax buur ba ne xaalat mu ne inal muluka naka buur yi di politiciens yi ida daqaloo bu ñu duggee xaar xaryatan ci këru diina yi afsaduha mën nañ leen a yàqal de wa jaaloo danañu mujjal aisata ahliha ña gënoon a tedd ca ñooñu foofa asilatan mujj di way torox rek wa kadhalika naka doon toujours yafalu la ñuy def toujours de nu may def wa indi naka man mursilatun aji yónnee laa ilayhim jëm ci ñoom bi hadiyatin ci kado fa naasiratun aji xool laa bi ma yar jox naka lay dellu see musulun ñu yónni ña de bàyyil ma ut kado rek su fekkee nitu nitu bu nitu adduna la dana ko jël bu fekkee tamit nitu diine la fokk ñu jëlee ci suñ caaxaani yóbbu nga ci dëggam nga nañ yóbbu kado bi léegi nag lii lépp bi nas mu nekk conseil des ministres Moussa Ndioubli mi yóbbu woon leetar ba mi ngi toog di ko déglu fekkee na lépp te gaa yëguñ ko ñi beegul de li buur bi wax ak la ko gaa yi tont ak lépp dégg nañ ko gaayam yónni tamit juróomi téeméeri nit la jël ku ñu tuddee Munfir moom moo jiite délégation moom la jox leetar bi moom buur bi léegi nag jël juróomi téeméeri xale yu góor boole ko juróomi téeméeri xale yu jigéen jël xale yu jigéen ya solal leen mbubbi góor ñu sol ay budi sol seeni ay jiin sol ay kap ne leen nag bu leen buur bi waxee rek bu ngeen di wax rek na ngeen xaw a dammal seen làmmiñ ba ngeen mel ni jigéen ngeen su ngeen ci bàyyee ko mu jël jigéen ñi tamit mu jël góor ña fuddan leen takkal leen ay jaaro takkal leen ay seen ñu takk ay lam jël seen bopp yi ñu ko coiffé ko ñoom tamit musóoru ba mel ni tabaarakallaahu ay ay ay ay ay jigéen lañ fekk góor lañ mu ne yéen tamit bu ngeen di wax ak buur bi rek xaw leen a nasal seen yaram yi ba ngeen mel ni ay jigéen ñee tamit nañ ñagasal ñagasal leen ba mel ni ay góor ngeen ñagasal leen seen kàddu yi ba ngeen mel ni ay góor ngeen fekk ay jigéen lañ pexe mi yëpp Moussa Njubuli mi maanaam fekkee na ko mu jox leen eh, lu mat juróomi téeméeri fas ca góor ña juróomi téeméeri fas ca jigéen ña tegee sax tegee wurus la gaa yee war ca nag départ nañ Moussa Njubuli mi topp na ko action bi bàyyiwul dara lépp mi ngi koy mi ngi koy filma mi ngi jokkoog Souleymane départ nañ tey place la ñu yendu fii la ñuy fanaan ba mu des nag nga xam ne tey la ñuy war a yegsi mu wax ko Souleymane ne ko gars yi dañu yegsi tey te tamit pexe mii lañ nas jox na ko tamit ay wurus ay teme yoo xam ne kenn bënut ko parce que buur seen lépp pasin la dañ lay pasin rek mu ne ko nag fekkee na yonentub yàlla dana xam naka la ñuy bënnee wurus wi jox na ko ga gars yi ñëw nañ Souleymane moom par préparé 60 kilomètres yoo xam ne da koo def muy muy muy wurus maanaam tapis 60 kilomètres ci wurus la lalal loolu mënuñ koo am mu génnee jinne yi ne leen yéen jinne génne leen seen doom yi ngeen tertul ma buur bi jinne yi ran yu ñëw ran nit ñi ñëw sayatin yi kenn ku ci nekk ni nga mënee rek nga feeñal ko mi ngi mel ni tey rek bu bu réew mi président bi waree am gan lépp loo xam ne moom la réew mi am danañ ko génnee ci tertu ci taxawaay ci liñ ci man lépp kenn ku ne aada ji nga man rek ña man leket ya ñëw ña man riite ya ñëw ña man xaw ma seen balambata yooyu ñëw bawul dara lépp rek loolu lépp baax na loolu lañ am kenn ku ne li nga man nga indi ko Souleymane tamit li mu am lépp maanaam génne na ko mu tabax tamit ay ay étages yoo xam ne vert la foofu la gaa yi war a jaar bu doon léegi ñu ne njaal mooy boulevard bi gaa yi war a jaar pour mën a gis rafetaayu dëkk bi léegi nag gaa yi ñëw nañ bañ ñëwee ñoom daal li njëkk def cadeau yooyu ñu yore woon fekk Souleymane ku lay pësin dafa bàyyi ay ay turu ay place yoo xam ne defuñu fa dara ci wurus lam bàyyi tamit moo tolloog cadeau yañ ko waroon a andil gars yi ñëw dox ci boulevard bi gis ay digg-digg yoo xam ne amul wurus ñu déyante ne ah lii bu ñu ko joxee euh, yonantu bi muñ ko joxee ñoom danañu xam ne li ñu def dafa xeeb ñaareel bi tamit place yi ñu jaarale ñu tuñu ñoo fi jaar ki gis na wurus yu manqué dañu foog ne ñoo ko sàcc nañ ko fi rempli ndax mu fees ñi far lañ jëloon lépp ñi far sotti ko foofa pour feesal place bi ñi muñ koo yeggale léegi Souleymane xamal leen ñi ñooy góor ñi ngeen di jigéen lépp pexele parce que parce que yi buur bi def yëpp Souleymane xam ko mu des nag léegi wurus woowu nga xam ne bënn guñ ko lu ko war a bënn Suleymaan woo na nit mënu koo bënn mu woo jinne yi mënuñ koo bënn mu woo saytaane yi mënuñ koo bënn ci la door a woo maanaam max ndax maanaam armée bi kenn ku ne ak sa liggéey max bàyyeekoo foofa rek ñëw jël ko jël jël maanaam wurus si di ko bënn di ko bënn di ko bënn ba turu bi fëll mu des nag ne ko dañ cee war a nas wëñ mu woon nit ñi mënuñ cee nas wëñ dafa sew jinne yi mënuñ ko saytaane yi mënuñ ko Suleymaan woolu sax sax wi moo jël fexe ba jël wëñ ji maanaam nas ko ci biir ndax dafa jël eh, wurus bi rek ak wëñ ji rek dugal ci rek mu xam ne lii la ci nam bënd nañ ko nag Souleymane keroog la laaj max loo bëgg dundee mu ne dama bëgg dépense yomb ma rek te du ma sonn mu ne ko ñaanal naa la ko ci garab yi moo tax duñ jënd garab yi ak yi luñ bëgg la fekk leen mu ne yow sax loo bëgg mu ne ko dépense rek na ma dépense yomb borom kër yu bëri naam am dépense rek su ko defee mu ne ko ñaanal naa la ko ci fur wi muy fawaakih yi moo tax yow da ngay bay da bay sa bool sa toolu banaana wala toolu pomme wala orange weñ wi ñëw njëkk la koo mos sax wi ñëw njëkk la koo mos te mënoo ci dara su defee kon nag loolu leen Souleymane ñaanal gars yi nag ndeysaan rus nañ nag jël nañ leetar ba wan nañ ko Souleymane jàng nañ ko ci kanamam gars yi départ nañ nag ña ngay ak gàcce dem nañ ca buur ba wax nañ ko ne ko kii yonentub yàlla la mënuñoo xeex ak moom dooleem ji dafa rëy li fi sës kay mooy takkal sa bagage ñuy dem jébbalu ji léegi nag gars bi ñu indee cadeau ba déglu li Souleymane wax ba nga war a yëg ne nitu diine kenn waru koo nger lu Souleymane atumiduuna nii bi maalin suleymaan ne fala maa jaa ba nga xamee ne dikkal na ndaw la a suley suleymaana suleymaan fala maa jaa bam dikkalee moom ndaw la suleymaana suleymaan xaala sale suleymaan ne atumiduuna nii ndax da ngeen maa bëgg a tëbb bi maalin ci alal man kenn mënu maa ngeer nitu diine laa fa maa aataani yallaahu li ma yàlla jox xayrun moo gën mi maa aataakum ci bi leen jox de bal li fi nekk antum yéen bi hadiyatukum seen kado bi tafarahu na ngeen i béggee di ko ségrilee faale huma leen jël leen li am ngeen delloo ji ko man nitu diine laa kenn mënu maa nger kon nitu nag naka jekk bi àdduna yàqoogul kenn du ko nger saa yoo dagalee ñaqu jàmbur yi jox ko ko mu delloo la ko ne ñaqi baadalo la looloo waraloon gis nga ko xadir wala zul xarnay ne nguuram gu rëy ga ba mu demee fële ca gaa ye nekk ca yaajuuja ak maajuuja gaa ye ne ko dañoo bëggoon ñu nger la jox la alal ju bëri nga mën ñoo defal benn miir bu traversé fii lu luñ ko wax fahal nañ fahal nañ àllaka xarjan ala an tajala baynana wa baynahum sabdan ñuy jàng suddan lu mu wax qaala ma makkani fiihi rabbi xayrun li ma yàlla jox gën li ngeen ma bëgg a defal de bu ma dimbal leen ma rek fa ay aynuuni bi quwa ul leen ay mineebar daal su ngeen xëyee ñu pointé leen ngeen liggéey waaye bu ma kenn joxalal yonentu yàlla muhammad nu mu def sallallahu alayhi wa sallam keroog ba aaya jëla wàccee fa ataw an yu dayifuhuma te mi ngi wàcc ci waa antakiya ñoo ñu wàccoon dee nañ bu yàgg ndax dañoo soro soxoroon siis mi ngi yem ci siise ñam ñi siise ko yonentu yàlla bi di Moussa ak Xadir bañ fa demee amuñu lu luñ lekk gaa yi ñëw te ñoom seen boolee ci digg maanaam penc ma lañ koy teg waa dëkk ba yëpp génn ku sottal añ dana yóbbu sa penc ma gaa yóbbu seen añ ya ñaari gan ñu ñëw nuyoo xaar ba ñuy er, maanaam teg ndaxam raxasu mi rek ñu ñëw ne ñun dañoo soxla ndoxam jàpp gaa yi nag ne leen may leen ñu gan ñi ñu añ ba pare ngeen door a ñëw loolu lañ leen tontu ndeysaanam nag euh, Moussa mer ne ko yow comme fekkoon nga banque réew mi mi ngi bëgg a daanu yaa ko jubbanti laaj leen fay ñi mën cee jënd añ ndax yow fa fa wajada fiha jidaaran yuridu an yanqada fa aqaamahu qaala law shita la taxasa alayhi ajran léegi nag euh, kii tontu ko xadir ne ko ñaanuma ko yàlla man ma ñaqal deretu wëlliyu yàlla nga ne naa faye ko du ma ko def xanaa xamoo ne lii ma def ñi ma ko defal seen maam wëlliyu yàlla la yow yaa ngi nii ñaqaloon nga deretu yonentu yàlla ndax fayoon nañ la keroog ba nga demee ca Madiyana fekk fa doomi bu ya amuñu fu ñu nandalee nga nandal leen est-ce que fayoon nañ la mu ko déedéet mu ne ko ñaari ñoo xam ndax al ulamaa warasatul anbiyaa yi moo tax ñaqal deretu nitu yàlla wala ñaqal deretu yonantu lu ko ëpp garante xamut bu ma laajati payot tey boo tax tax mu ne ko tey laay teqalikoo ak yow ray nga nit ma muñal la ko ray naa nit maanaam nga laaj ma ko ma muñal la ci aqatalta nafsan ta bi xayri nafsin yàq naa gaal ak jàmbur nga ne ma axaraxtaha li tuxriqa ahlaha ma muñal la ko waaye keroog ba ne mën naa laaj payoor ci dereetu nitu yàlla tay laay teqalikoo yow qaala hada firaqu bayni wa baynika sa unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alayhi sabra moom mooma nag bi aay ji wàccee ngir histoire booba waa dëkk ba Antakiya dañoo sëf seen sëfi gëléem yu bari def ci or ñi nañ dem ci yonantu bi lu ñuy wuti ñu ne bi benn baa lañ bëgg mu jaay ñu ko fekk na yonantu bi ci Madina ne ko dañoo fekk benn baa goo xam ne ci alquran dafay tegtale suñ maam yeeg suñ bàyyee dañoo siisoon te loolu ak soxor la soo ko fi bàyyi ñu koy jàng ba péncam yàlla kenn duñu naaw la woo dañoo bëgg baagoogu nga def ko muy tomb ci kaw indi beneen moroomam rek teg ko ca abaw la alquran wax neel fa ataw rek su ko defee neel fa ataw rek an yu dayi ma ñëw nañ pour ñu ganale leen waaye bul waxati fa abaw an foo dayi foohuma loolu gàcc la ci ñun yonentu bi ne leen jël leen seen wurus weeg lépp ngeen yóbbu ko man kenn mënu maa nger wa maa ubadiluhu min tilqaayi nafsi aw ma droit di ko sensé kon doomu soxna warul nangu kenn di ko ngeer li ko yàlla defal jaarale ko ci maam yi kenn mënu ko jënd amul prix kon loolu la leen Suleymaan wax moo tax mu ne fa la maa jaa ba nga xamee ne dikk na dikkal na ndaw la Suleymaana Suleymaan qaala Suleymaan ne attumi duuna ni ndax da ngeen maa bëgg a tëbb bi maalin ci alal fa maa aataaniya loo xam ne fa maa aataaniya loo xam ne jox na ma ko laaw yàlla xayrun moo gën mi maa aataa ci li ngeen dikkal ma amul sol bal li fi nekk antum yéen bi hadiyatikum ci seen kàddu yi tafraxu ne i sigirle dem leen mu teg ca lii ne irji dellul ilayhim jëm ci ñoom fala natiyannahum walaay ñu dikkal leen bi junudin ciy soldaar laa qibala yoo xam ne déet kartan lahum di leen ñeexal bi ca soldaar ya wala nuxrijannahum walaay danañu génnee leen min haa ca dëkk booba nga dëkkoon azillatan ñi di way torox wahum fekk mbir moomu ñoom saaxiruuna way xeebu lañ de fee bi muy wax ci juróomi damir yëpp da koo def mbooloo waaye ba muy wax dellu gi pour ñi bi da koo def mufrat ne irja waxul irjaxu ndax dafa jël euh, wax ji adressé ko mun fiir mi nga xam ne moo jiite délégation ba ne ko jëlal leetar bi nga ñibbi xamalal sa buur bi la yónni ne ko ñëw mën a jébbalu si rek ñu ànd jaamu yàlla mi ñu bind bu waxtu julli jotee ñu julli bu loolu mënta am nag danaa ko indil force boo xam ne mënu koo dékku fu mën di jaar danaa ko alak moom ak gaayam yëpp danaa leen seeyal gaaya dem nañ wax nañ loolu buur bi buur baa ngay waaj dara sa dara dara xewatul moo tax nitu diine bu gëmee boppam lépp fekk si ko état lay fekk si lu leen mën naa ñëw fekk si la waaye boo leen fekkee rek yàqule yonentu bi daana wax ne dee leen teral borom xam-xam yi feeg jaxasoo wuñ ak nitu àdduna yi buñ jaxasoo nitu àdduna yi bàyyi leen leen ñoom ñoo ma xem yooyu yonentoo ko wax moo tax mu ne kon naa toog du ma dem fenn moo tax waajal nguur ga la muy rëy yëpp ma ngay ànd ak nguur ma ngay ànd ak nguuram ga yëpp ñëw seel ko ci Souleymane mi nitu diine diine rek kay dëgg léegi nag Souleymane a ngi waajaa ngi ñëw fi mu déparé di ñëw Moussa Njublim ba tey mi ngi topp action bi xam naa kooku daal bu ko wal fajiri amoon dana baax lool de bàyyiwul benn action topp na ko lépp mu ngi ko topp ba mu ba dara desul waajaa ngay départ ak nguur ga ma ngay ñëw pour war a jébbalu si moom Balxiis départ na ña ngay ñëw ña ngay ñëw Moussa Ndioubali mi ne ko ñaar amagum na ñaari fan ñetti fan fan bu mujj bi ñu war a yegg si rek mu wax ko ko booba nag daanaka dese nañ maanaam 20 euh, kilomètres moo des pour ñu yegg si Souleymane bis boobu nag la war a yegg si Souleymane bëgg gën jommalaat buur bi ne leen gàngu naay gam doon toog laa bëgg ku ma ko andil fii ma toog bu ñëwee ma toog ko ma ma ne ko toog ci Suleymaan am doole yàlla may na ko doole kan moo ma mën a andil gàngu naayu buur ba bu ñëwee ma man ko cee teg mu toog ci waaye bu ñëwee nag bu ma teg gàngu naay gi nañ ci sensé tuuti yokk ci wàññi ci ndax bu ñëwee dana ko xamam déet lu waral loola Suleymaan dañ ko wax ndaw saak na mu mel xelam nekk maanaam mu am xemeem pour maanaam takk ko ci waxin pour yokkee ko diine te ab yonantu comme mooy yonantoobu xeet bi mooy bàyyi ñëpp ku mu bëgg rek yàlla may na ko ko jeex na léegi nag seytaane yi bëgg a yàq diggante ba ne ndaw si nga bëgg a takk déedéet du fi dal ndax gis nañ ne soxna si yaayam jinne la moom Balqis yaayam jinne la baay ji nag nit la ñu gis ne bu ci Suleymaan amee doom rek ñoom si ab noteel la ñuy dee buy Suleymaan di génn àdduna doomam nga yilif leen te ñi fi Suleymaan bàyyi mënuñu leen a yilif ñi bañ nag sëy ba am ñu ne ko ndaw si yàllaa ko may sans wërsëg rek waaye xel mi ñorul dof la Souleymane bëgg a exeme xel mi ndax ñor naam ñor mu indi sées ba am lu mu ci yokk am am lu mu ci wàññi war koo laaj ndax lii mooy sa sées bi wala déet beneen bi tamit ni gars yi di boo amee soxna su bees ni koy gars yi xaw ma ñooñ di xaxar lu ne danañ ko wax jinne yi tamit ne ko maanaam tànk yi tànk yi comme comme weyi mbaam la tànk yi boo ko gisee comme tànk mbaam beneen bi ki tegu tamit ñu ne ko kawar yaramam wi yëpp dafa dafa dafa am kawar yaram wi yëpp dafa sax kawar ñett yi lañ ko bëgg a yàqal Souleymane pour bu mu takk ndaw si waaye bi ko Souleymane vérifié benn rekk ci dëgg kawar gi yaram wi am na kawar waaye li ñu wax ne muusut ndaw si xamul dara du dëgg li ñu wax ne tamit weeyi comme weeyi mbaam la du dëgg looloo waral li ñu ne Souleymane comme ba gën a takk ndaw si rek yàlla may na ko ko looloo taxal bi ndaw si ñëw bi mu ko tegalee mar bu yi ne ko dox si mu foog ne ndox la ci la ci la ci la yëkkati ta maanaam yére yi mu xaw a mel ni ku koy wax mu ne ko déedéet lii lii du ndox marbu rek la ci loolu tax mu mën a gis tànk ya looloo mën a am kon takk gaa tax mu mën a gis tànk ya wala nga ne ñaareel lu tax kon mën a gis tànk ya ci sariya am gis tànk jigéen jigéen tànkam awra bokkut ci woon ci sunu ci sariya la yonentu yàlla Muhammad nag jigéen léppam awra la ba mooy xarxaram ba ak ca ténq ya ñaar yi rek nga ko mën a déggee moo tax gis na tànk ya ak yeel ya mu mu vérifié lañ ko waxoon dara nekkul ci dëgg nag fi ñuy mujj ak fi mu koy takkee danañ ci yegsi moo tax xaala Suleymaan ne yaa ayyuhal malawu yéen mbooloo mi ayukum anakumu ci yéen yaati nii moo may indil bi arshiha ci gàngu ga qabla an yaatu ni njëkk ñi may dikkal muslimina di way jébbalu de ku ma ma indil ga qaala wax na ifritun kuy ma minal jinni ci jinne ya ne ana man aatika danaa andil la bihi ci moom qabla an taquma njëkk ngay jug min ka sa taxawaay bi nga toog di hàtte wa inni naka man la qawiyun aji am kartan laa alayhi ci indi sées ba aminun kuhóor laa ba wursu duma ci sàcc dara kon ndeke li tax ñiy tànn nit war koo jox place moo xam njiit lu mun di doon la moo xam assemblée la moo xam sénat bi la moo xam ministre la moo xam nga war a nekk gouverneur wala nga war a nekk ambass maanaam nga war a nekk ambassade ca ambassadeur yi nga nekk ci kenn ci ambassadeur wala nga nekk ilimaan wala chef de quartier maanaam ñaar rek la tànnee mooy xam-xam ak njub moom la alquran wax xam-xam ak njub rek moo tax maanaam façon tànn ni ñu ne député bu góor député bu jigéen parité l'islam xamu ko l'islam dafa ne nañ seet su fekkee jigéen ñaa gën a dàq jàng gën a jub nañ ëpp ensemble bu ko góor ñi gën gënee def nañ nañ leen tànn ñu ëpp ensemble waaye léeg-léeg xam nga nga ne benn góor génn jigéen fekk place boo xam ne jigéen ñaa man góor ña foofa léeg-léeg nga dem place boo xam ne góor ñaa fa man jigéen ña kon yàlla ci tànn ci al alquran ñaar rek waa ji na nekk ko am compétence ñaareel bi na nekk ku koo xam ne ku wér la du sàcc su fekkee nag tànn nga tànn amoo ñaar ku boole ñaar ñii nga seet la place ba laaj bu place ba laajee njub donte waa ji xamut nga jël ko fa teg ko fa ndax problème mu xaalis la su fekkee place ba xam-xam la laaj donte waa ji jubut a ah ñi jëriñu ci xam-xamam mu ñuy lor tamit ci ak sàccam rek kenn ku ne ñu muñalee ko li mu muñal ñu ci lale moo tax li lay xamal na ñaar ci la ñu tànnee alquran a ko wax gis nga yonentu yàlla yusufa bi mu bëggee ñu tànn ko jox ko ministre bi yore affaire yi comme comme lu mu wax ij'alni ala xazaa'inil tax mu ne inni hafizun alim ji nga tamit Samuel ba muy proposé gaaya buur ba di taalu ta lu mu leen wax inna laa stafaawa aleykum wa zaadahu bastatan fil ilmi wal jismi yonentu yàlla Moussa ba koy doomu Suhayb ba di proposé pour baa gi jàpp ko sàmm lu mu wax inna xayra man istajarta al qawiyul amin kii tamit ba ne ko mën naa la andil sées bi lu mu ko wax wa inni alayhi la qawiyun amin kon ñaari rek la lislaam xam waaye góor ak jigéen loolu maanaam wax rek la du tànnoonu lislaam bu góor ña gënee xam nañ fa gën bëri bu jigéen ña gënee xam nañ fa gën a bëri waaye loolu du lislaam xam ko su ko defee nag mu ne ko fii nga toog di àttee bala nga fee jug rek mu indi la sées bi Suleymaan ne bëgg naa lu gën a gaaw loolu bëgg naa lu gën a gaaw loolu la wax léegi nag mu des na ko ko war a indi ci laay tëjee xaala wax na la di nga xam ne indahoo nekk na fa moon xel mun xam minal kitaabi ca téere ba ka fa ëpp xam-xam am ismullaahil azam wax na ne ana man aati ka danaa andi la bii ca moom qabla an yartada ñëkk bay xeef tarfu ko sa pet bi yaa ngi nii xool sa bët yi bala ngaa xef ma indi ko léegi léegi Suleymaan am doole falammaa raahu ba nga xamee ne gis na gàngu naay ga mustaqiran muy aji sax indawoo fa moom qaala la wax ne haada lii min fadli rabbi mi ngi bàyyi ko ngëneel sama borom de li yëpp lu woon ngir mu nattu ma rek askuru ndax danaa sant am akufur wala ndax damay weddi wa man sakara képp koo xam ne sant na fa inna maa yaskuru ndaal dana sant nafsi ñeel boppam wa man kafara képp ku weddi fa inna rabbi naka borom sama xanniyun aju xoomal la walis ku ko sant karimun ku tedd la de foofa nag teg leen seen baaraam Souleymane ne bëgg naa lu gën a gaaw loolu ñaari wax ñenn ngeen ne Souleymane sax moo indil boppam gàngu naay ga dafa def mu'jiza mu'jiza du dara moo karaama li fi sëf li fi sës rek bëgg nañoo dem fi dem tànk mënta dem oto amut boto amut avion amut kon li fi sës mooy def karaama wala nga def mu'jiza rek nit ña jëriñu waaye feeg leneen leneen mi ngi mën a am rek mu'jiza du ko jarati feeg leneen mën naa am rek karaama du ko jarati karaama du wut lu ñu togg ba mu ñor ñu togg di ko xaar déedéet dañu dem ba xam ne lii moo fi sës rek loola ñëw feeñ fekk borom sàkkuwut ko sax maam xalifa ne gaa ya ko am sax duñ ko nangoo feeñal dañuy nekk gàcce ci ñoom comme ni góor gu am régal bi ko doon feeñal ni mu amee gàcce fal kasfu qad qiila xaydul awliyaay fama tamilu dëhëran lahu ahlul inayaati léegi nag lii moo fa sañu ne kon Suleymaan nag tamit moo andi gàngu naay ga ndax mbooleem nitam ña moo ca gën a bëri xam-xam ndax kon indahu ilmu min alkitab kon Suleymaan la la ñenn ñu ne ñeen déedéet benn waajoo xam ne asif nu barxiya lañ koy wax ca nitam ña la woon yàlla xamaloon na ko isbulaayil ansam moo ne ko yaa ngi nii sa bët baa ngi nii bala ngaa xëf rek man di la gàngu naay gi léegi turu yàlla foor na de waaye jàng turu yàlla wa turu yàlla wi mu jàngoon fukki baat rek la bu jëlee ci Aïcha mu ne ñaari baat la yaa xayu yaa qayyum la jàngoon rek ne yow yàlla jox ma gàngu naay gi mu ñëw mu ne nii rek gàngu naay gi taxaw ci kanam Suleymaan ñenn ñene boo demee ci imaamu Suhri yu mu ne fukki baat la jàngoon yaa ilaahana wa ilaaha kulli shay'in ilahan wahidan laa ilaha illa anta itini bi arshiha fukki baat yi rek la jàng rek jàngu naa nga taxaw ci kanamam waaye yow mi may déglu boo ko jàngoon kaasam ndox bi sax nga jot li ma ko doo ko mën a andi li ko waral baat yi fam newoon ma nga fa waaye ñun ñoo newul fañ newoon comme fi ñu newoon newuñu fa nag baat yi di ñëw di ñu fekk si taagi ñaan yu bëri dañuy tag lii rek la waxoon ñëw waaye waat naa ci yàlla boo ko waxoon dara du ñëw mooy tur wi wér na waaye yow mi koy wax yaa wérut léeg-léeg nga jël xaatim jox ko waaju xam lasraar lool mu xool ko ne tur wi mu de baax na de waaye yow mi koy sikar yaa damm doo gis dara kon teg leen seen baaraam foofu ci yaa damm ba suba wasalaamu aleykum wa mi dafee liggéeyam sol mbu sol mbubam journaliste wane ne journaliste bu defee liggéeyam dëgg dëgg dëgg di joxe xibaar yoo xam ne wér na te te du nangu tamit kenn nger ko pour jënd ko liggéey bu rëy rëy rëy mën na koo liggéey ci am réewam ba tax na tey Suleymaan ak tey Balqiisa fi mu mujj lépp liggéeyu benn journaliste bu ñu tuddee hudhud la ba tax tey mu joxe résultat bu mel nii ndaw si ànd naag gàngooram ga war na ñëw ngir jébbalu si Suleymaan ne kan moo may indil gàngu naay gi mu daan toog balaa ñëw su ñëwee ma entré ko mu toog ci léegi nag kuy bi nga xam ne moo jiite jinne yëpp ne ko mën naa ko fii nga toog di àtt ci suba gi bala ngaa wàcc rek ma indi la gàngu naa gi Suleymaan ne bëgg naa lu gën a gaaw loola léegi nag ku ñuy tuddee Asif nu Barxiya yàlla xamaloon na ko ismulaayil azam donte sax ismulaayil asgar amut moom mooma nag mu ne ko man ngaa xool bala ngaa xëf rek ma indil la gàngu gi jii mu doon toog muy tekki ne turu yàlla lu mënul amut te baat yooya mu jàngoon fukki baat la boo demee ci imaamu suuri loolu la gëm Aysatu ne déedéet ñaari baat rek la jàngoon muy xayul xëyum waaye yow boo ko jàngoon fi ne nii kaasam ndox bi jege la même pas un mètre da ngay wax jottali ma ko li ko waral li ñu jàng la mu jàng ba def li mu def fi mu newoon ma nga fa waaye ñi koy jàng ñoo nekkul fi ñu newoon moo tax léeg-léeg nga am turu yàlla yore xaatim gu mag ñu seet ko mu rabax wala mu salas fekk damut nga sikkar ko doo gis dara parce que yow mi koy sikkar yaa damm kon bu tur damut te yow mi koy sikkar damu su boobaa doo mën a am maanaam résultat kon waa ji sikkar sikkar na turu yàlla wi mu nekk lu wér moom mi ko doon sikkar ne wér lam ci doon wut tamit lépp yàlla defal na ko ci ndaw si nag ñëw na ndeysaanam Souleymane nag entré ko ci kaw séesam bi mu daan toog laaj ko ne ndax xam ndax sées bi melul ne sa sées bi noonu la ko laajee mu ne ko daanaka moom la su ko waxoon ne ko ndax duwul sa sées bi waaw rek la koy wax ne ko moom la waaye ni mu ko ko laajee ci tësh bi moom tamit mu tontoo ko ko noonu ci tësh bi ñu déggee ci tamit ne ànd ak ku baax lu mënta maye amul Moussa Njubuli mii def liggéeyam mu rafet dana bokk ci rab yi dugg aljaana ëllëg dañuy wax ne fukki rab ak benn ànd nañu fukki nit ñu baax ak benn ba tax na ñooña bu yowmal xiyaamee yàlla dañ leen dugal aljana kon loolu luñ ci jàngee yow mii nit boo àndeek nit ku baax nangu mbaa xam nga mu lay digal lu baax nga di ko def mu lay tere lu ba lu bon nga koy bàyyi ngeen ànd ca boo lëggee tamit aljaana rek ndax yonent bi nee na almaru maa man ahabba ashaabul kahfi seen xaj booba toppoon leen alquran tudd ko bu yowmal qiyaamee dana dugg aljana benn xaj boobu rek nag moo ci dugg aljana Cheikh na Tijaani wax na ko ñaareel bi tamit mbaamam mooma mu waroon doon def tukkee moom ak la ca xew ba yàlla xëy rey mbaam mi dekkil ko gannaaw bi mu dundee lu ma téeméeri at bi mu dee ba ma téeméeri at mbaam moom dana dem aljana gis nga ko tamit Suleymaan nag xorondong bi mu doon wax ak muy taaxiyatu mu dem woo mbooloo mi xorondong yi indi leen seen addiye ñu teral yonentu bi yàlla bi booba xorondong dana dem maanaam aljana naka noonu tamit yonentu bi mbaamam mee ñu daan tuddee yaxfuur ak xufayru ñoo ngi tamit bu yowmal qiyaam boo lëggee ñoom ñoo ngi danañoo duggu aljana noona nga koy toppee ba ci hudhud bi ànd ak suleymaan soo lëggee moom tamit dana dugg aljana kon ànd ak ku baax te jéem a baaxee ca baaxam ga lu mu mënta may amut waaye soo àndee ku baax nag te jéemoo baaxam ca baaxam ga tamit du la jariñ dara baax mënta mënta passé nekk yonantoob yàlla te ñaari yonantoo ngi nii seen soxna yi safara la dem alquran wax na ko benn yonantu soxnaam safara lay dem di waa waaxilatu beneen yonent bi mooy maanaam luut danañ ko jàng si soxnaam ba safara lay dem alquran wax na ko mu ngi tudd waahilatu lu ko waral dañoo ànd ak ku baax te jéemu ñoo baax ca baaxam nga mbaax mënta passé bi yonantu te yonentu jur na doom muy kanaan di noox moom mooma tamit doon la te topp baax ak baayam nga boo liggéey day dem safara kon lu ku baax bu la juree ak loo ko jege-jege te jéemoo baax ca baaxam nga bu yowmal xiyaamee du du leen jëriñ dara yonentu baa ngi nii am na ñoo xam ne moom ak moom moom ak baayam ñoo bokk benn ndey ak baay abu jëhli nag la ci aju alquran wàcce na saar di ko tëkku ci safara kon jege amul njëriñ mbaax rek maanaam moo am njëriñ ca wàllu wa kon nag maanaam suleymaana ngoog ak balxiis balxiis yegsi na nag suleymaana nga koy laaj mbiram gàngunaay geek bu ca bàyyeekoon nag suleymaan dafa tabaxoon ay étages yoo xam ne verre la bu ñu ñëw pour man ko cee entrer comme rek ku am buur bu lay gane si lépp loo am ci lu rafet loo ko mën a wan danga ko def yebal na jinn yi nag tabax tabaarakallaahu ñu tabaxool ko ay étages yoo xam ne verre la fi mu koy entrer buur yi li xam ku am buur ko am sa moromam buur mu lay gane si loo koy lalal tapis rouge mu ñëw war cee jaar moom passé na loola tapis weer moom la ko lalal boo xam ne wurus la ndox mi nekk ci suuf ay jën di ci daw bu doon léegi daal naa niroo Euh, man li ñu tuddee maanaam aquarium loolu la niru maanaam mu ne ko nag dox ci waa ji foog ne ndeysaanam ndox la mu yëkkati euh, yére yi commencé wax mu ne ko déedéet delloowal sa yére yi te xam ne fii ngay dox veer la loolu nag mu ngi ci doon jàngee ñetti xibaar yi ñu ko jox pour mën ko cee xam bi ci njëkk mooy dañ ko waxoon ne ko ndaw si dof la xelam mi ñorut maanaam yeewuwul loolu tax mu woon di gàngu gi waaye nag bi mu ko laajee ne ko ndax lii melut na sa gàngu naay mu ne ko daanaka moom la ci la xamee ne xel mi ñor na ñenn ñi tamit ñan ko ne ko tànk yi daal comme dafa mel ni weyi mbaam loolu la xaw a niru di ko saboté noonu lañ ko wëndee mu ne ko ah, mu xool tànk ya ñu ne ko tamit yaram bi dafa sax kawar te booba xam nañ ne Souleymane bëgg na ko boole ci soxna yi te booba jinne yaa ngi fiir ndax soxna sii di Balqis yaayam jinne la te kon bu ko Souleymane takkee rek su boobaa mën na koo jox secret jinne yi su ca amee doom doom jooje mooy mujj yilif leen comme ni leen Suleymaan yilifee ñoom ñi dee ci ak baadolo loolu lañ doon daw nag waaye liñ doon daw ba tax ñu joxe ñetti xibaar yooyu dara ñaari ñaari wéru benn bi rek moo wér léeg-léeg tamit nga gis nit takk soxna ñëw gaaya wu jiyaak gaaya di ko tooñ li la mel ak dafa mel ni lu ne dana koy dégg kon loolu lu fi yàgg la soxna yi yàlla moo leen moo ñaale ak fiir bu doon kenn di mucc ci fiir soxnaay Seydunaa Muhammad yi mucc ci te nga xam ne tabaarakallaahu soxna si yonantu bi la daana wax ne yonantu bi amoon na fukki soxna ak benn mais ñoom ñëpp ki ma ci gën a fiire mooy xadijatu mi nga xam ne maa ngi moom sax bokkuñu wujjee ndax bi ko yonantu bi takk fekk na xadijatu génn àdduna fu yonantu bi toog rek di nettali mbaax ak xadijatu loolu nag mujj daal mel ni lu xaw a fatta Aïcha mu ne ko daal màgget moo xam ne bi nga ci jot ak am na ñaari jëkkër man mii nga takk ma ci xaleel bu ndaw foo toll naan xadijatu xadijatu yonent bi nag ne ko yàlla joxul ma ko ko gën bi ma ñëpp weddee moo ma gëm bi ma ñëpp timit wanee gannaaw moo ma jox alalam doom yi ma yàlla sa wërsëgal juróom-ñaari bant lañ juróom-benn yëpp moo leen meññ kon yàlla joxul ma ko ko gën Aïcha nee na keroog nag laa mujj wax ak yonent bi ci wàllu Xadija buy wax daal su ma mënee toog noppi su ma ko mënul mat jug maanaam wan ko gannaaw nga déggee ci ne soxna yi danañ fiire ba fiire seen wujj woo xam ne génn na àdduna fekk seen firange ga jeexut seen xol seddut ca ñu mujj di wane firange ga ak wujjee ga ci ay doomam yu mu bàyyi gannaaw di leen xatal ca kër ga di leen sonal li may wax yéen a ma ko gën a xam moo tax xaala mu ne Suleymaan wax ne ne nakkiroo na ngeen soppi lahaa ñeel ko arsuha gàngu naayam ga nanfur ñu xool atëx yi ndax moom dana jëndeeku am takkuunu ndax dana nekk mi ne lisi na ci nga xam ne laa yaxtadoona duñ gindeeku de falamma jaat ba nga xamee ne dikk na moom ndaw sa xii waxeef na ko ci wàllu Suleymaan ne ko ahakasa ndax melut nii arsu sa gàngunaay gi xaalat mu ne ka annahu daanaka moom de huwa moom la ndaw saay wax ba tey ne uuti naa joxeef nañu al mu xam-xam bu wér ci kenn ak yàlla ki ak wér ak nubuwatoog Suleymaan gi min qabliha njëkk a indi sama gàngunaay gi fii fi mu jaar ak hut hut mu jaar fa ak man ci laa xam ne kii yonentoob yàlla piir la kon wa naa nekk nañ ñun muslimiina di way wommatu ànd ak Souleymane de ñenn ñene wa uutinaa na nañu ñun Souleymane al ilmu xam-xam bu wér min qablihaa njëkk njëw ndikk ndaw si ñëw maanaam di ma seet si wa naa fi nekkoon nañ muslimiina di way wommatu jëm ci yàlla njëkk muy ñëw kon lii mu ñëw di ñu ci wuy si dafa ñu cee fekkoon ñu dañoo jël damir gi delloo ko ci Souleymane ñu delloo ko ci Balqiis Balqiis nag ci lay gën a rafet kon Suleymaan a ngoog foofu la mu jëg Balxiis li ci des nag Suleymaan tabax na ay état su verre lalal na ko maanaam tapis verre jël ndox def ko ci suuf jën yi di ci daw ndaw si nag war a ñëw Suleymaan teg daangu naayam ba ca kanam pour war koo xool pour mën a seet ñetti xibaar yiñ ko wax benn bi wér na ne wérut te mooy xel mi ñu wax ne ñorut kon ñor na ndax gàngu naay bi xàmmee na ko mu des nag la liñ ne ko tànk yi daal weyi comme weyi mbaam la ñaareel bi tamit kawar gi yaram wi dafa sax kawar ba ba fees yegg si na ndaw si yegg si na xii la waxeef na laa ñeel ndaw si ne ko duxuli tàbbil asarha téegam weer mi fala maa ba nga xamee ne gis na ko xasibatu njort na ko lu jëtan muy lëgg muy ndox wa kasafat wuññi na xeexaa ca ñaari peeram ya qaala Souleymane nekk ca kanamam toog ca gàngu naay ga ne ko innahu naka moom sarxun téeg la rek mu maradun mu ñu raxtaxal min xawaarira ci weer waaye duhut li nga ko foog de duggal nga yegsi maa ngi lay entré yegsil qaala ndaw sa jommi na ba wax ne rabbi yow sama borom inni naka man zalamtu tooñ naa nafsi sama bopp wa aslamtu jébbalu naa bis ni ki tey maa Souleymane ànd ak Souleymane lillaahi ñeel yàlla rabbil aalamiina kay borom mbindéef yi de lii la mujj wax. kon fii la Suleymaan mu jëg moom fii tamit la alquran yam boroom xam-xam yi nag continué nañ ci di gëstu ba ne Suleymaan takk na ndaw si waaye lu ci mun di am laajoon na ko ne ko dama bëgg nga ut jëkkër ndaw si moom ëppale woon na boppam nit ñëpp da ba ba jàpp ne daal amul genn góor gu ko war a mën a denc Suleymaan nag xamal ko ne ko jëkkër dugg ci néeg néegab sëy chariatul islamiya moo ko digle ak jaamu yàlla la comme ni nga tuubee nii tuub gi ni mu nekkee ak jaamu yàlla pour bokk ci la nag ndaw si doora a nangu léegi nag bi nangoo ñii dañ ne ñaari wax dañ ne Suleymaan da koo may benn buur bu ñu tuddee Tuba dañ ci yegg si alquran tudd na ko moo jiite woon daan ñenn ñe ne déedéet Suleymaan moo ko may boppam am na ci jenn doom ju ñu tuddee Daawuda baayam la ko tuddee avant Souleymane di génn àdduna ci la doom jooja génn àdduna moo ko jëkk génn àdduna waaye Souleymane nag bi mu gisee ndaw si kawar gi bëri loolu xaw na ko si pour maanaam def ko soxna mu ne foog danañu wat kawar gi mu laaj nit ñi seen xam-xam lan moo mën a teqale ndaw si ak kawar gi nekk ci yaramam nit ñi ñoom seen xam-xam fi mu yem mooy lan set ne ko mën nañ koo wat ndaw si ne ko bi ma juddoo ba léegi sama yaram wi weñ musu ko laal kenn du ma wat mu laaj maanaam jinne yi amuñ ci xam-xam ci la mujj laaj shayatina yi ñu jox ko benn defal ko benn produit bu ñu tuddee nuuratu mu nekk loo xam ne boo ko diwee ci yaramam wi rek maanaam kawar ga ruus loolu lañ ko mujj diwal kawar ga ruus mu mujj bokk ci soxnaay yonentu yàlla Suleymaan yi waaye Suleymaan nag da koo bàyyi mu delluwaat réewam fële ca yaman ca saba yi Suleymaan def ko takkoo kon takkoo Suleymaan moo ko fi jëkk def mu d'accord ak moom ñi bokk takkante ci d'accord ne weer wu dee dinaa la seet si benn yoon waaye su ma ñëwee ñetti fan laa fay am moo tax kon sa takkoo bi lu ngeen juboo rek su ngeen ne maanaam kenn bu dee moom laa fay def samedi ak dimanche sariya d'accord na ànd leen ci su fekkee dafa ne damay jël moomee comme ñeneen soxna yi te nga man ko mu mën nangu ko sariya d'accord na ci soo ne ko at mu ne benn yoon laay ñëw wala bi maanaam ñaari weer yu ne benn yoon ba tey sariya d'accord na ci Souleymane takkoowam bi weer la ñu d'accordoon waaye weer wu ne ñetti yoon la fay Souleymane di dem Souleymane yebal na jinne ya nag étage yi mu romboon ba mu dugal ko mu yéem ko Souleymane nañ ko ko tabaxal foofa ba mu xam ne amul dara kon dëgg-dëgg diine rekk ay dëgg moo tax mu ne xiila waxeef na laxaa ko ne ku duqili tàbbil asarxa téegam weer mi fala maara at fu ba nga xamee ne gis na ko xasibatu njort na ko lujjatan muy lëgg te mooy ndox mu bëri wakasafat wuñ ñi na an saa ci ñaari peeram ya qaala Souleymane ne ko déedéet yegsil innahu naka moom sarxun bu la mu maradun bu ñu raftaxal min xawaarira ci weer qaala ndaw sa jommi na ne rabbi yow sama borom inni naka man axlamtu tooñ naa nafsi sama bopp wa aslamtu jébbalu naa bis ni ki tey maa Souleymane ànd ak Souleymane lillaahi ñeel yàlla rabbil aalamiina kii borom mi ndeefi de moo tax ku gëm diine di ko pratiquer lu ne na la fekk si jërul ngay sekki dara Souleymane bi mu gëmee yàlla toog mu toog lépp fekk si na ko. nguur yëpp mujj nañ seey ci nguuram gi mu mujj yilif àdduna nguuram gi nag yàggut ku teel a jël nguur la fukki at ak ñeent ci la doon baayam doon ko di di xalifa waaye doon ko timit di buur bool leen ñoom ñaar nguuram gi yëpp maanaam daanaka boo ko seetee juróom fukki at ak la am ak ñett ku gàtt fan la bokk na ci yonent yi gën a gàtt fan gannaaw ñoom Yaxya ak ñooña ak euh, man ak Isa waaye moom juróom fukki at la am ak ñett génn àdduna yonentu yëpp nag boo demee ci Ihya ulumi diin bu imaamu Ghazali nee na bu ëllëgee bu ñu duggee aljana yonentu yi danañ dugg ñu toog lu lu toll ni presque juróomi téeméeri at Souleymane door di dugg door door ji yegg si aljana foo nekkoon mu ne yàlla da doon audité sama nguur gi naka laa ko doxal ak li ma ci doxal moo tax kon ku la ëpp alal moo la ëpp problème yowmal xiyaam ndax sa dërëm bu ne dañ la laaj foo ko jëlee laaj la fan nga ko dugal foo ko jëlee fu baax dugal ko fu bon yàlla mbugal la foo ko boo ko jëlee fu bon dugal ko fu bon nga am ñaari mbugal moo tax mbooleem question yi yàlla lay laaj àllaaxira benn laaj benn tontu ba mooy alal dañ la ay na ayna iktasabahu wa fi ma anfaqahu waaye ci des yëpp nag benn laaj benn tontu buy alal nag foo ko jëlee foo ko dugal li la mën a dimbale nag mooy nga jëlee fu baax dugal fu baax yàlla nangu ndax innamaa yataqabbalu llaahu minal muttaqiin te tamit inna llaaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiban waaye jëlee fu bon tiriyaan nit ñi ñëw tabaxi ay jàkka du sotti këppu kees ñëw maanaam tabax daara du sotti jëlee tamit fu bon këppu kees ñëw gën a defaat lu bon tabax maanaam yeneen yoo xam ne dañ fay jaayee ay sàngara ak yeneen yi ci aju ñaari mbugal nga fi ngay am loola nga bàyyi yow danga la ci mbugal ñu jëlal di la bindal bàkkaar tamit ñëw ñi nga xam ne ñu ngi amee bàkkaar ci sa bàkkaar bi te yaa ko sosoon kon alal jar naa bàyyi xel ku la gën a bëri alal moo lay gën a mujj dugg aljana ndax danañ audité alalam ji fan la ko dugal kon ñàkk moo gën a naqari ci àdduna waaye bu yowmal xiyaamee nag tabaarakallaahu ñàkk mooy gën a yomb foofa ndax ñi am ñu ñàkk te nekkoon ci def lu baax du ñu am problème dañu ñëw rek daanaka jàll amuñu leen audité amuñu dara waaye nag ñu bëri la na ñoom kenn ku dana am fi ñu koy dugal loolu yàlla misaal na ko fii sax yow mi tukki bitim réew jël vol am ñaari ñaari bagage c'est benn bagage bi accompagné la yaa ngi ànd ak moom moom da ngay ñëw rek beneen bi nag moom dañ ko dugal ci vol bi nga ñëw ngi seet ndax fi ñu koy jaarale nga toog di xaar ndax valise yi wàcc nañoo wàcc ñu ndax dañ ko dugalaat ci beneen vol lañ ko embarqué da nga dem ak ñëw ba sonn waaye yow mi nga xam ne moom yaa ngi amee dix kilo wala lu ko moyen da ngay ñëw rek génn doo am benn problème da ñëw rek daal maanaam jàll amul ñëwaat aéroport sa mbir yëpp leeral ndax li nga amee woon mi ngi nii waaye boo yoree nag yeneen bagage yoo xam ne conteneur la danga toog ñu seet ndax maanaam yegsi na nga toog topp maanaam ci ban kii lañ ko dugal loolu day yàgg lool kon noonu tamit lay mel maanaam àllaaxira kon yàlla fii lay xem daal ci wax ji waaye boroom xam-xam yi nag nekk nañ di càmbar ba ne Souleymane takk na soxna si boole nañ ko ci juróom benn soxna yoo xam ne yàllaa leen maye dañ ne juróom benn sëy la yàlla takk bi ci njëkk sëyëb aadama ci xawaa sayyidatuna xawaa yàllaa ko may aadama kon boobu sëy yàllaa ko takk beneen bi mooy yonentu yàlla Muusa soxna sa sale mu takk muy sabuura yàllaa ko ko may ci anun ki hakka ihda ibnataya haatayni ala an taajurani thamaaniya hijajin ba tey tamit yonentu yàlla euh, yuusufa yàllaa ko may soxla suñu tuddee zaliqa sayidatuna xadija ak aïchatu ñoom ñaar yàllaa leen may sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayidatuna fatima yàllaa ko may aliyu waaye balqis tamit yàllaa ko may suleymaan juróom benni sëy yi lañ wax ne yàllaa ko takk yeneen ñi ci des nag soo bëggee soxna yaay dem laaji waxtaan ak sa goro ba fu ngeen jubee ñu laaj la can li nga mën a joxe nga joxe ko waaye moom yàllaa leen ko may dañ koo takkee ci xaras décret bi door a wàcc ci biir ci su kaw suuf jeexal nañ kon ki Suleymaan maa ngi ci beneen yonantu yonantu bu ñuy tuddee Saalihu yàlla yónni woon ko ca nit yi Samuuda ya nekkoon nit ñu am doole dañ daan yett ci montagne yi di ci dëkk li ñuy tuddee ak mbëru foofu la njëkk a xewee muy mbër yi di xew ak bëri bi foofu la njëkk a xewee nit ñu amoon doole lañ yàlla yónni ci ñoom benn yonentu bu ñu tuddee saalihu arab la yonentu yi ñeent rek ñoo ci arab ki ci njëkk mooy huut arab la ñaareel bi mooy saalihu arab la ñetteel bi mooy soxaybu arab la ñeenteel bi mooy sayiduna muhammad arab la su ko defee kon nag saalihu moomu yàlla yónni ko ci ñii ñu nekkoon nit ñu am doole seen kartan ak seen doole jay leen ñu ngi dëkkoon place bu ñu nekkee xijiru daanaka mi ngi ci diggante Sham ak Yaman seen àll ya du sori a munawara bu baax du sori noonu yonentu bi muy dem Tabuk sax romb na fa ci seen place yi ba wan leen saaba ya gëlëm gi doon eh, maanaam teen bi doon gëlëm ak yonentu yàlla saalihu gi daan naan gaa ya dem foofa commencé wàccee seen cin yi ak seen mbana yi di togg yonentu bi ne leen tuur leen li ngeen toggoon lépp wala ngeen jox ko maanaam seen gëlëm yi ñu lekk ko waaye bu leen ko lekk place bii ñu fi dëkkoon yàlla moo leen rëbb su ngeen fi duggee na ngeen jooy su ngeen mënta jooy na ngeen jooy jooylu damay bañ li daloon ci kaw ñooña dal leen après ñu ne ko nag dañoo bëggoon a xool place bi rek pour mën a xalam ak loolu yonent bi ne génn leen ngeen traversé place bi nga xam ne fi lañ dëkkoon buy place bu leen yàlla rëbbee nit ñu bon lañ woon di jaay doole léegi nag wax su la su wax wax yonent yàlla saalihu ne ko duñu la gëm mukk mukk lu dul montagne bii ñu jàkkaarloo moo jur gëlem nekk jamaat waaye gis nga kartanal yàlla gi lottut ci dara alaysa laahu bi qaadirin ala an yuxiya al mawta yàlla mën naa fekk lu dee mu dekkil ko kon man naa fekk lu dee mu génn ci luy dund ñu ne ko waaw bu ñu bu la mu ne leen bu montagne bi juree gëléem ngeen gëm ma ñu ne ko waaw waaw pour moom nag nit ñi gëm ko ngir ñu mën a texe ba nga dem safara jaral na ko lu ne ndax nit ku baax du bëgg kenn dem safara bu ko doon jaral jaay alalam jaay darajaam lépp gën ko def ngir bëgg nit ñi dem aljana ba tax na sëñ Abdou Aziz dafa daan wax ne su doon safara benn place boo xam ne su ma tudd duggee mu fees rek man ma dugg fa te ñëpp dem aljana rawatina Sénégal lay jaral na ma ko ngiram ñëwenteem ak mbaaxam ak yéene jim yéene jullit ñi aljana su ko defee kon nag ñu wax ko loola mu ñaan ca saasa rek tàllal loxo ya ñu dégg montagne bi matu comme jigéen génn mu jina montagne bi jur na ponkalam gëléem gëléem googa juraat doom ju toll ni moom presque mu ne leen am ngeen problème de naaqatallaahi wa suqyaaha jëlem ji bis bu ayee ci dëkk bi lépp lu fi ndox moom kenn moo koy naan waaye nag beneen bis bi yéen ngeen naan laha sirbun wala kum sirbu yawmin ma'lum day naan tey ëllëg ngeen naan da di aye moo tax léeg-léeg ngay ñaan xéewal ndeke xéewal googu ngay ñaan bu ñëw sa coono lay doon xéewal ga ñëw na di seen coono bët bu set nag gëlëm ga bu ñu waree naan ñoom bu ñu bu gëlëm gi waree naan dana taxaw ci buntab këru kenn ku ne ci ñoom nañ gaa yi ratt ba ne soxlaatuñ meew mu dem ci beneen buntu kër noonu lay def ba kër ya jeex kon ñoom bu ñu amul ndox tamit am meew noonu la gëlëm ji nekk ak ñoom ci diir bu yàgg yàlla nag xamal na saalihu ne ko sa gëléem gii danañ danañ ko rey saalihu wax na gaa ya ne leen sama gëlëm gii danañ ko rey ki koy rey ci jamono ji la war a judd identifier leen kooka ni muy mel kooka juddu tudd xudar ndeysaan ñeen wax nañ ne sax judduwul ci yoon lu ci nekk bët ba day patt ku ñaaw lay doon kawa kawar ga dafay nekk ku jëxam wax leen nam mel waaye juddu na mel noona ñeme wuñ koo rey ndax parce que doomi ci seen ya la waaye seen doomi kilifa googu yóbbu leen toskare moo tax doomu kilifa gu xamul boppam li mën a yàq ci réew mën ko yàq ci diine mën ko yàq ci askan dafa wax na leen loola nag ñëw na ñem wuñ koo rey ndax seen doomu kilifa la dem na màgg na nekk na ponkal danoon màggam dafa gaaw am na téere yi wax nañu lu nit di màgg ci bis moom ci waxtu la koy màgg lu nit di màgg ci weer ci bis lu nit di màgg ci at ci weer mu gaaw a màgg lool nekk ponkal moom ci boppam nag dem ñëw na gars yi ne ko ñun daal benn gëléem moo fi nekk la yën nañu witt mënuñ ci dara mu ne leen man danaa ko rey mën naa koo rey tër lu na gëléem gi dóor na gëléem gi gëléem gi ŋaax jàllar bi ku dee doom ja daw dugg ci montagne bi yaayam génnee woon léegi nag gars yi dem nañ ci saalihu wax ko ne ko sa gëlëm gi dee rey nañ ko mu ne leen bi ngeen koy rey ñaata yoon la ŋaax ak doomam ji ñu ne ko ñetti yoon mu ne ñetti fan moo leen fi dese bis boobu mu wax leen ñetti fan moo leen fi dese bisu àllarba la mu ne leen nag bis ñetti fan leen fi dese bu leen ci compter waale àllarba bu leen ci compter waale tamit bis bi nga xam ne ci ngeen ni alku kon de leen ne alxewes ajuma samdi dimanche ci suba teel bi jant bi fenk ànd ak jibril xaacule ñoo ñëpp ñu alku kon information bi ñu ngi ko jot maanaam bisu àllarba alxames ngay tàmbalee ajuma samedi dimanche ñoom ñi alku léegi nag kon li leen ko yóbboo mooy nit ku bon kooku di xudar moo bokk moo nekk ci ñu gën a texeet ki ñu njëkk ña yonentu mos naa toog Ali ibnu Abi Talib toog ah, yonentu bi laaj Ali yu ne ko ndax xam nga nit ñu njëkk ña kan moo ci gën a texeet mu ne ko déeréet mu ne ko ndax xam nga ñu mujj ñu ku ci gën a texee di mu ne ko déeréet yonent bi ne ko nit ñu njëkk ña fi yàlla bindee aadama ba bi may feeñ ki ci gën a texee di buñ la ko laajee neel xudar moom mi rayoon gëléem ak yonentu yàlla saalihu ga mu ne ko nag ñu mujj ñi ki ci gën a texee di mooy ki la nar a dër jaa jël jaas gi dóor ko ci sa kàngam bopp mi deret ji sottee ko ci baat yi moom la alquran ne ko mu ne xanaa jàngu alquran ki njëkk ki gën a di mu ne ko nu ko alquran waxee mu ne ko isim baxasa ashqaaha ba nangoo buur mu taawa taawaala ku nangoo buur ashqaha ki gën a texee di ca nit ñi ndax lu bon bi ñu koy def ñi gën a ñàkk kilifa ñoo taxaw ne maa koy def man naa ko baare tali taal ay puna def nangam ak nàngam ci yoo xamee ne ni ñi ci ëpp ñi koy ñemee rek ñaanal day nekk ñoo xam lu ñekk ca leen di fekk waaye ñi am kilifa duñ nangoo def loola moo tax mu ne kon isin baasa ashqaha mu ne ko nag ki ci gën a texee ñu mujj ñu mooy ki lay rey ki lay ray nag mooy ko ki jaas gi dóor ko ko mooy Abdurahman ibnu Maljim nga xam ne Aliou dafa jug di julli ji suba mu tërlu ko ndeysaanam dóor ko jaas ji weeru koor la tombeek Aliou jógee ko ca ca la ca ji boromam maam xalifa nag ne gannaaw ki rey Aliou ñu mujj ñi ki ci gën a texee mooy ki yàlla nattoo nga bañ nit ku baax nga bañ nitu yàlla di ko contour di wax jëmee ci moom ci lu bon mu ne ñeneen ñu des ki ñu mujj ñëpp yow yaa ci gën a texee di kon moo tax mu ne wala man tadabal ashqa ila sabi imaamil awliya al fudala aradtu nafsi ila tiaani wa darbi duna cheikhina tijaani kon ñetti catégorie yi ñoo fi ne moo tax kon saalihoo ngoog moom lay wax si nii ne wala qad arsalnaa wallaay sa dëgg-dëgg yónni woon nañ ilaa samuuda jëm ci niti samuuda ya aqaahum seen mbokk ma saalihan saalih ba mu ñëwee mu ne an eey wax bu doo wéetal leen laaxa yàlla fa isaa ci mbetteel hum ñoom fariqaani ñaari kuréel lañ yaxtasimuuna ñu ngi xuloo ñu ngi doon déglu yaxtasimaani mu ne yaxtasimuuna def iltifaat kaala moom ña da ngay xuloo mooy kuréel bi ko gëm ak bi ko gëmut qaala moom saalihu wax na leen ne yaa qawmi yéen sama nit ñi li ma tastaajilu taa ngeen ni yàkkamtee bi sa yaat jëf-jëf ju ñaaw ju leen a jural mbugal qablal xasanati njëkk jëf ju rafet ju leen a jural yërmande yàlla tàbbi aljana law laa tastaxfiruuna lu taa ngeen jéggalu laaha yàlla laallakum mbastale yéen turxamuuna yërëmeef leen de déglu li ko gaa yi tontu xaaloo gaayam ne ko ñun de tayar naa gaaf lu nañ bi ko ci yow wa bi man maxaka ak ñu ànd ak yow de dangaa gaaf bi nga ñëwee ba léegi dara doxut qaala moom moom saalihu ne leen taayirukum seen gaaf gi tëgg gi dafa gàcca indallaahi ma ngi fa yàlla de yàllaa leen gaafal de bal li fi nekk antum xaw xawmun nit ngeen ñoo xam ne tuftanu na def na nattu leen ci aw yiw ak nattu leen ci aw xay bu ñu leen joxee yiw nattu leen ndax da ngeen sant jox leen aw xay tamit ci nattu ndax da ngeen muñ lii daal mooy seeni mbir kon yonentu yàlla saalihu wax leen lii ñu tontu ko lii ne dangaa da gaaf bi la yàlla yónnee ba léegi dara doxut bi fi ñëwee ba léegi dara doxut léegi-léeg nga dégg dégg nit wax ko kon gaaf dafay yàgg ak jéem a gaaf lu nit laajoon nañ ko yonent bi ne ko gaaf am na mu ne su fekkee am na de ci ñett la mooy ci jigéen ci kër ci fas ñu ne ko nag ñu firi yi firi ko ne gaaf ak jigéen du dara lu dul bon soxor bañ a togg bañ joxe ñam siis ci mën a joxe ñam maanaam nekk jigéen gu dëngee jëkkëram bu jëkkëram ne ko benn mu gën ko rëy làmmeñ wax a wax a wax ba wër ko su ko defee mu ne kon googa jigéen xam nga ne gaaf na ñaareel bi gaaf ci kër mooy xat foos bi di di xelli heure bu ne sabe si boole koo mënoo am sa fooy noyee kër ga xat ba nga xam ne yow boo tàllaloon sa tànk sa genn wal tànk yi nekk ci biti kon loola gaaf la ci kër waruwaay nag muy fas bu doon léegi nga ne oto oto bu màggal rek mooy gaaf oto boo xam ne foo tollu yaa ngi seet batterie bi di sotti asib mu yàq sa yëre yi oto bi bu tàkkee kon bi yëpp na leen cuuraay te cuuraay la du neex oto boo xam ne boo yeewoo suba teel koo romb kaay puus ma kon kooka maanaam gaaf la kon bu gaaf amee maanaam ci ñett yi ci la gaaf am ci kër ci jigéen ci waruwaay waaye léeg-léeg nit réer am soxna mu ñëw amul doom nga taxaw gaafal ko ne soxna si dafa gaaf amul doom wax ju ñaaw la su fekkee da nga ne jigéen bu amul doom gaaf na kon jàppal ne soxnaa yonantu bi yëpp gaaf nañu ndax ñaar rek ñoo ci am doom fukki soxna ak benn la am aswaajuhu ummahatul muminina xiba udda aswaaju taaha ayun a aya fadlin xawathu tilka nisaawu waaye ñaara ci am doom muy maariyatu xibti yi mi ko buur bala ca isibtu mu xaw xis yoon ak maanaam saydatuna xadija aïcha toog li muy foor foor ak li ko yonantu bi bëgg yëpp nga xam ne mi ngi ko takk ci juróom-benni atam ñu jébbal ko ko ci juróom-ñeenti atam yonantu bi génn adduna fekk mu am fukki at ak juróom ñetti ñu koy tënkee xayun to toogaa toog toog góor kenn dencut ko ba mu am juróom-benn fukki at ak juróom-benn door a génn adduna moom moomu amul doom ndax yonantu bi comme mooy bàyyu mbindee fi soxnaam yi ñooy yaayu mbindee fi kenn mënta takk sa yaay wala an tankihu azwaajahu min ba'di abadan moo bi yonent bi génn at ak juróom-benn juróom-ñett la am muy xayu waaye gis nga ko toog na di dund ba am juróom-benn fukki at ak juróom-benn mooy limab àddadu allah moom la dund waaye mosta toog benn góor ci kaw lal kon kenn du Aïcha moo tax daal bu ñu la laajee dund mi neen moo gën fan yonent bi menn ñett ñetti at yonent bi juróom-benn fukki at ak ñett Aïcha juróom-benn fukki at ak juróom-benn xadijatu mi am doom tamit juróom-benn fukki at la am ak ñeent moom dundam bu ñu la ko laajee mooy diine boo jëlee xarafu diine nga siifur ko maam xalifa ne mooy dund ab xadijatu ndax diine boo ko jëloon nun cinquante la yaa gi ko xëcc maanaam nekk diis nga jël deel gi muy kaat nga jox ko mu jox la maanaam juróom benn fukki at ak ñeent loolu la xadijatu dund su ko defee kon gaaf duhul ñàkk doom waaye ñun ni yore doom yore soxna muy muy wujjee ak ay wujjëm yàlla wërsëgalu ko doom nga nekk fa di ko gaaruwaale ay wujjëm di ko gaaruwaale ay say jigéen di ko gaaruwaale nga xam ne say yu ci bëri lu yàqu goro yi ak say jigéen ñi nga xam ne dañoo sëy woon ñëw tas nekk ca kër ga ñenn ñi amuñ jëkkër nekk ca kër ga jàpp ne kii dafa war a seyaaleel ñëpp loolu problème da ci sëy yi su ko defee kon nag di la gaaruwaale loolu lislaam xamu ko kon daal gaaf bu amee yonent ne fekkee am na ki ñett yi rek la am moo tax xaaloo gaaye ne ko tayar naa ñun de gaaflu nañ bi ko ci yow wa bi man maaka ak ñi ànd ak yow xaala mu ne taayirukum seen gaaf gi doo ko firi aji gaafal leen ci ismu faay gi dafa dafa gàccew xend yàlla de ban li fi nekk antum xaw xawmu nit ngeen yoo xam ne naa def na nattu leen de ci aw xiiw def na nattu leen timit ca safaan ba ndax da sant wala da ngeen muñ léegi nag bi leen saalihut natt bi leen saalihut tëkkoo ne leen lu fi mun di am ñetti fan moo leen fi defee bu ñetti fan yi jeexee rek seen àdduna tukki na ndaw lu métti deegooy séentu te xam nga waxee ab yonantu moom kenn mënu koo fànq juróom-ñeent ñooña nag gën a ñàkk kilifa ñi bokk complot wax ne daal léegi xam nga li fi sës moom ñii dafa wax ne juróom dafa wax ne ñetti fan moo ñu fi dese waaw nañu fexe lem fanam yi balaa ñetti fan yee am buñ ko rayee moom balaa ñetti fan yee dee balaa ñetti fan yee jeex ñun dootuñ deeati léegi nag tàgguwaat dëkk ba ne dañoo bëgg a tukki dañu jël vol ñi jëm France gars yi jàppoon d'accord nañ ne dañuy tukki tàggoo nañ fekk dañoo lal plané dañuy dañ tàggoo ba gars yi ne tukki nañ rek dem nañ jël nañ vol tukki nañ ñu dugg ci benn xuntu ci gannaaw dëkk bi saalihu foog dana julli ji fajar bu xaaree bu julli ji fajar rek ñu tërlu ko rek ray ko buñ demee sax nañ rayaale waa këram rayaale dëkkandoor yi dend ak moom bu gaa yi ne gaa yi dee nañ saalihu ray nañ ko ñu ne ñun fekkee wuñ ko ndax booba ñun dañoo tukkee woon fekkuñu fi kon jënga lal plan lu fi yàgg la di agressé nit ñi di tër nekk ci oto yu yàqu yi yi nekk ci maanaam poti lamp yi buñ la rombee tabaarakalaaw yore sa sa yore ñu yore sa portable ñenn ñi nekk bu bëre bi demee ba nga xam ne làmb gi tas na ay ponkal jàppante soo ñëwee ñi mbaal la léeg-léeg mën nañ laa gaañ sa bakkan mën na caa des loolu lépp problème lu fi yàgg la moo tax kuy rëboo nit ñi ne da ngay rey nit ñi di leen tërlu ci yoon charia dafa ne buñ la jàppee dañ laa war a rey lu dul nga ñëwal sa bopp tuub si su fekkee danga ñëw tuub si kenn jàppul la soo mosoo ne rey dañ lay rey su fekkee mosoo rey nag àq yi nga defoon yàlla julli yaag or weeru ko yi ñi bàyyi la yàlla te fay loola ko waaye boo fàttee bakkan dañ laa war a fàtt kon loolu nekk na loo xam ne lu garaaw a garaaw la te bëri na ci jamono ji nit ñi fu mel ni benn portable sax mën nañ cee rey nit léeg nga gis nit ñi benn cigarette mu ñu rey ci nit léeg nga gis loo xam ne lu ñàkk solo jigéen gu amul dara di wàcc war a xëy ne day liggéey ca jëm ya ñi ca marché ngir bëgg a mottalil seen jëkkër ca dépasse ya teel a jug gi am ay xale yu góor yu sàggan yu ñàkk kilifa di leen tërlu ñii dañuy tëdd ak ñoom ñii dañ leen di rey ñenn ñi dañ leen di rendi kaa bi xewut bu yàggul yéen a ngi koy gis ñi dañuy jël rendi leen luqi seen i bët te loolu lépp mosuñ koo dégg ci Sénégal te jikko yu bon yooyu tey ñu daan dégg lépp tey tuuru si na si suñu réew mi kon loolu jar naa bàyyi xel waaye xoolal juróom-ñeent ñett juróom-ñeent ñi waxoon dañuy rey saalihu fu ñu mujj ba ñu demee ba dugg ci biir xunt mi ne li am daal comme ñetti fan la wax nañu gaaw balaa ñetti fan yi am ñu rey ko suñ ko rey ñun dootuñ deeti waaye ñoom bañ duggee ca xunt ma di xaar guddi gi rek xunt mi seen kaw ñoom ñu dee ñoom dañoo dee avant ñetti fan yi seen ñoom nit ñi nag ñoom ñu door a dee wax si nii moo tax mu ne wakkaana nekk na fil madinati ci dëkk ba tisaatu rëhtin juróom-ñeenti jiir si yufsiduuna ñoom danañu yàq fil ardi ci suuf wala yuslihuuna te duñ ko xéwénal de xaaloo ñoom ñëpp bokk nañu wax ne taqaasa moo gën lante nañ billaay ci yàlla ne lañu lanu dana ñu tërlu ko wa ahlahu ak ñañam ña su ma la naqu lan na topp danañu wax li waliihi ñeexal ñu méngoo deretam ja ne maa shahid naa ñun de fekkee wuñu mahlika ahlihi alkandeeg ña alkane seen waa ji fekkee wuñ ko de te su boobaa buñ ko waxee tamit gars yi dañ ko nangu kon wa innaa nak ñun su boobaa la saadiquuna way dëggu lañ da fekkee wuñ ko yàlla wax ne wa makkaroo lal nañ pexe makkaran ak lal pexe waaye wa makkar naa delloo nañ tamit suñu seen pexe ma makkaran ak delloo ci seen kaw wowum fekk mbir mu ñooñ laa yash'uruuna duñ ko yëg de ndax yàlla du la pexeel pexe ko amul pexe ko amul kartan na koy def koo dégg man ma pexeel ko rek da nga amul yàlla man lépp du nekk fa di pexe moo tax kon mu saakala la ñëwee waaye doo ko ko firee arab day wax noo waxee mu tontoo la ko rek waaye yàlla du fi nekk di lal pexe dalay delloo sa pexe mi nga laloon mu këpp ci sa kaw moo tax ñett ku ko def ci sa kaw rek lay këpp képp koo xam ne dangaa xor soo yeboo nga leble ca loo àttan li nga ci leble lépp ci sa kaw lay këppwaat pexe mu bon ku ko yéene sa morom la nga ko yéene rek mooy këppwaat ci sa kaw wala yaxiqu ko sayyi ilaa bi ahlihi makru sayyi ilaa bi ahlihi ba tey tamit yéene ju bon képp koo xam ne yéene nga ko sa mbokk julli ñi tamit loola ci mbokk nit ñi loolu tamit mooy del siwaat ci yow Seexul Islaam Haaj Ibrahima dafa daan wax ne ku yéene jaamu yàlla yi ku yéene jaami yàlla yi jàmm du tax ñoom ñëpp am jàmm ndax yàlla tëraleewut noona waaye yow moom da nga am jàmm jaami yàlla yi nag ku leen yéenewut jàmm du tax ñoom ñëpp ñàkk jàmm ndax yàlla tëraleewut noona waaye yow moom da nga am maanaam da nga mukki ca da nga mukki ca la leen yéene kon jaamu yàlla yi ku leen yéene jàmm am jàmm donte ñoom xamuñu ko ku leen yéene safaan ba loola këpp ci sa kaw donte ñoom maanaam muccuñ ca wala ñoom donte mucc nañ ci kon loola lu jar a xel la moo tax yéene ju baax lu am am solo la moo tax mu teg ca ne maanaam wa makkaroo ñoom de lal nañ ay pexe makkaran ak pexe wa makkar naa delloo nañ suñu suñu lañ la ñu laloon wa makar naa delloo nañ seen pexe ma makkaran ak delloo ci seen kaw wowum fekk mbir moomu ñoom laay soro luñ ko yëg de léegi ñoom ñëpp nag mujj nañ dee ñee muy juróom-ñeenti giir yooya Huzaylu ca la bokk xanam ku ñuy tuddee maanaam yabaab moom tamit ca la bokk Omar ak Asim ak maanaam subaytu ak samaan ka ca gën texe at yi nag juróom-ñeenti ñu ñàkk kilifa yi mooy xudar moom moo waxoon ne man maay dem rayi giléem ga comme ñoom ñeenti ñu ñoo la plan waaye moom moo ca gën a bon ndax moo sax moo tax lu bon saa yu koy ay nit di tëral ka ca gën ñàkk kilifa rek mooy féetee kanam su boobaa tamit luy këpp ci kawam dong lay këpp mu mu teg ay mbokkam ay coono teg ay xaritam gàcce te du mujj fenn te lii lépp li lañ ko yóbboo ñoom ñii telli ay doomi kilifa lañ nekkoon ñu ñoo xam ne seen kilifa dañoo tekk ci réew ma ki takk ay ndomba tànk ñuy jiite tamit loo xam ne lu am solo la nit ña rage ragalee leen ak wegee leen seen kilifa ya ba ñu xëy tey ñoo boo leen alkandi gi kon loolu lu jar a bàyyi xel la yàlla na di wax fi mujj moom lay wax si nii moo tax mu ne fanzur xoolal kayfa kaana naka la nekkee aqibatu makrihim mu jëg seen pexe ma innaa ñun yàlla damar naahum alag nañ leen wa qawmuhum ak seen nit ña ajmaxiina mbir mu muy mboole seen de fa tilka loola le buyutuhum mooy seen néeg ya romb ngeen leen xaawiyata ñi di way ràpp bi maa fa na mu ci bu seen ak tooñ de ina saalik naka nekk na ca loolu la ayatan ay kaawteef guy tegtale suñu kartan li qawmin ñeel nit ñoo xam ne la a dañu xam loolu de ñoo ñoo ko mën a jariñoo wa anjaynaa musal lañ sax ñoo xam ne aamanoo gëm nañ wa kaanu te ñu nekkoon yattaqun ci ak bokkaale boole ko diwital yàlla de ñoo ngi di mucc nañ saalihu nag moo mujj mucc ak maanaam ña ko gëmoon ñu ko weddi woon nag daan lal pexe mu bon mi ñañ ko doon lalal yépp ñoom ñëpp maanaam mujj nañu alku dee dem safara kon nit ku baax ku ko bañ bala ngaa dee dem safara ndax sa xol bi dana tàng moom muy gën di yéeg ngay gën di yées nga dee tamit yow ci sa bopp dem safara kon loolu musiba la bàyyi na bàyyi na bàyyi na yonantu yàlla saalixu mu ngi ñëw ak yow nag ci yonantu yàlla luut beneen yonantu la luut moomu boo ko seetee alquran tudd na ko ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar la turu yonent yàlla luut ñëw ci alquran nekk doomi mbokkam yonent yàlla Ibrahima man ngaa wax ne daanaka Ibrahima ko yar boo tax na moom bi alquran di lim sax ñi gëm Ibrahima moom rek la ko limal ni maanaam luut gëm na Ibrahima waaye ñoom ñaar nag comme kenn ku nekk sàmm ka sàmm nga am ay gàtt. dañoo mujj nag teqalikoo ndax seen gàtt yi xajuñu ci benn place kii jëm ca juróomi dëkkam yooyu di su di sa dóom kii jëm maanaam ci wetu Palestine mooy gannaaw bi nga xamee ne buur bu bon boobu di Namrus lakk na jéem naa lakk yonentu yàlla Ibrahim foofu la ñu jaara ñi ñu teqalikoo bu doon léegi daal kii jëm Saalum kii jëm Bawal waaye ñoom ñaar ñu ngi déggante ci jàmm léegi nag Luut moom juróomi dëkk yooyu ñu yónni ko nit ñu bon lañ ñoo njëkk a créé bon goo xam ne foofa la njëkk a déparé ñu koy tuddee ak góor jigéen te mooy ñaari góor ñuy sëy ñu koy tuddee liwaat ñoo ko fi njëkk a def loolu rek moo doon seen jikko boo demee ci mu fassir yu ne dañuy wax ne juróomi jikko seen jikko la bi ci njëkk jël sa kawar gi wat ko sa ñaari wàll yi bàyyi sa kaw sa kaw karaw gi ca kaw bopp mu nekk jubbu ñoo ko fi njëkk a def te léegi xew na dafa xaraam jamono yonent bi am na ñu ko defoon yonentu bi ne leen wat leen lépp wala ngeen bàyyi lépp ixluqu kulluhu aw truku kulluhu aboubacar ci xilaafaam am na ay xale yu góor yu wotoon seen wàll bopp yi bàyyi benn bi mu nekk jubbu aboubacar atte ne nañu rey xale bu góor bi bàyyi tuubal ko mu jéggalu ñu wat ko kon bu doon léegi dana rey ñu bari lool loolu nag yiwa di rek bàyyi sa kawar gi mu mel ni Moussa njubbuli côté bii yëkkati ko bii teel loolu sariya bëggut ko ñenn ngi danaa gis ni ci rëdd ay rëdd ñenn ñi di def yoon woo xam ne jëmut fenn yoon woo xam ne boo ko toppandoo yegg benn dëkk kon loolu lépp yiwa di rek ak ñàkk kilifa mais sariya xamu ko kon wat yu bon yooya ñoo ko fi njëkk a def ñaareel bi ñoo fi njëkk a xewal dam yi ak mariage ay ponkali góor toog samp seeni bant doxal dàq naa la maa rey nangam reyoo dara li nga nar a dàqe nga dàq loo yóbbu ci sa kër gi li nga nar a rey nga wut ganaar rey ko sa kër sa njaboot lekk ko moo ëpp doole nga nekk fi naan maa nangam rek loolu ñoo ko fi njëkk a xewal muy toogooyi gaare place yooya ñetteel bi tamit ñoo fi njëkk a xewal li xew léegi muy wàccee tubay nit yonentu yàlla di joo ko fi njëkk a xewal xale bu góor boo xam ne li mu sol bu la wanee gannaaw la mu jiital mi ngi feeñ foofu la yiwa di yem nga yëg ne sa tubay ji la gën a jege soo ko mënta takk lu la nit jox tamit nga bàyyi ko kuy bàyyi sa tubay lu la nit bàyyee nga bàyyi ko sa tubéy bi la gën a jege soo ko mënta takk lu la nit bàyyee buy magasin da nga ko da nga ko da ko da nga seyal alal ja su la joxee ay leçon tamit du mokk su nekkee baykat mu bàyyi la waar wi dana booy kuy wàccee tubéy daal loo ko wàccee mu wàcc ko dara nga ci mënut kon ñoo fi njëkk a xewal tabaarakallaahu wàccee tubéy foofu la njëkk a xew wàccee tubéy googu xewan ci ñoom moo leen yóbboo ak góor jigéen ndax seen góor ña di xoolante seeni awra ya dem na ba seen xel nekkatul ci jigéen ji góor la ñuy sëyeeg war a tey góor jigéen bëri tey ci réewu Europe yu bëri yoonal dencante ga nga dem ba Amérique tey utal nañ ko feet spécial boo xam ne bu jotee ci bis bi ci at mi góor jigéen ñi ñooy gën manifesté wu xalifa bu tedd bu ragal yàlla ba Mawlaay Haaji Omar Niass yàlla na yàlla yokk leeram ba mu demee tombee faak loola moom bi mu ñibbisee dafa tëj buntam julli yam julli woon Amérique yëpp mu baamu ko mu ne réew mu ñuy feetoo góor jigéen julli ma fa julli wóoluwuma ko danaa ko baamuwaat yépp te xoolal loolu te nekk musiba yoo xam ne kenn xamul fu mu jëm loolu bari ñu ci bëri tamit ragal rek waaye léeg-léeg sañu xaw a yurdoo seet ba xam population bi naka la ñuy gisee mbir mi waaye loolu foofa la mbon yem fa la toskar yem ña ko doon def tamit ci ak góor jigéen lu tere leen ne su ngeen bëggee sama doom yi jigéen yi ma may leen leen borom xam-xam yi firee ko ñaar sama doom yu jigéen ñu ne xeet wi rek la ca nam ndax comme mooy bàyyi mooy yónentoo xeet ba mooy bàyyi ñëpp mën naa maye ñeen na doom yi mu jural boppam daga noon na maanaam mu may mu may leen ñoo xam ne sax gëmuñu woon yàlla pour ñu mën a bàyyi lu bon la ñuy def ndax yonentu bi ci ci njëlbeen doomam yu jigéen ñi ñe doon denc du ñoon ay jullit jëloo na doomam bu jigéen Zeynabu Roqiyatu kii mu may ko Utbatu kii mu may ko Utaybatu ci noona ji nga koo maanaam ku mel ni kon Ruqiyatu ak Umu Kulsum la may kii Utbatu kii Utaybatu ñaari doomi Abi Lahab lañ mu jël Zeynabu mayoon ko Abu Asi mu des nag Fatima moom ñu ngi koy dencal Seyduna Ali kon ñooñu gëmuñu woon yàlla te mayoon na leen doom yi bi tabat ya daa Abi Lahab wàccee sax moo tas sëy ba ci la Abi Lahab woo ñaari doomam yi Utbatu Utayba ba leen du ngeen ma yaakaar yàpp ma yonentu mii yàllaam ji wàccee na aw saar di ma xas mu def ko ci saari suuf yi bu nekkoon ci kaw sax lu nit gàtt-gàtt aliwa yegg ci tabat ya daa bi li mën a am nag na ngeen teqali ko ak ñaari doomam yi wala ngeen génn sama kër léegi nag ndeysaan ñoom ñaar ñi fase ñaari doomi yonantu bi moo tey bëtu moom moo ca gën a texee di yemul ci fase ko dafa fekk yonantu bi su mu toog ci biir gara ci biir mbooloo mu poñe ko di bëgg a xeex ak moom ba xotti yére yonantu yàlla Muhammad yi yonentu bi ne ko yàlla na yàlla yàlla na yàlla ni nga xirtalee sama yëre yi ba di ko xotti yàlla na yàlla xirta ay ay xajam ci sa yaram wi mu dem saam ñaan ak yonentu bi du fanaan ba ñu ñib si ca njëgg ma noonu ndeysaan mënuñoo fanaan ci benn dëkk ñu war a fanaan àll gaynde ngay ñëw mais ni nit ñee bëri bëri gaynde yi ku ñëw fóon la rek bàyyi la ku ñëw fóon la bàyyi la ba yegg si ci moom moo moñata yaramam nga lekk ko foofu la yem ba tey kenn gisul bàmmeelam kon bu ñu def lu bon ngay jaani maa gën a bon na maa ko wax maa ko ñemee def gën a torox rek lay tekki gën a bon gën a torox rek kon waaye kee moom da koo fase tegul ci benn kàddu gu ñaaw amul ci benn problème kon euh, ci njëlbeen léegi-léegi nga gis koo xam ne gëmul yàlla di denc koo xam ne gëm na maanaam ñu may ko ko gëmul yàlla waaye mu jigi nag ci xare badar ci la décret boobu wàcc prisonnier yéen jàppoon su ko defee nag ci la yàlla wàccee aaya xaraamal ne ab yéeféer mënta denc ab jullit daganut mu benn bi rek moo dagan yow mi nga xam ne jullit nga mën ngaa denc chrétien dara nekkut ci ndax su boobaa moom comme gëm na yàlla ci li ngeen wuutee gëm na Isa yow gëm nga Isa gëm nga yonantu bi su ngeen waxtaanee da ngeen dem ba yéen ñaar ñoom ngeen gëm seen ñaari prophètes yi diine nekk fa su su ngeen nekkee nag ci dencante gi ba génn àdduna am te tuubul su boobaa maanaam doo ko doon donte yaay yaay jëkkëram boo dee moom tamit du la doon sa alal ji amul ci benn dërëm ndax dafa bokk ci sartaay ndonu bokku diine waaye ñu bokkul diine mënuñoo donnante kon ab yéeféer wala koo xam ne am na diine bokk ci ahlu kitaab mënta takk ab jullit waaye jullit boo xam ne góor la mën naa takk ahlu kitaab kon loolu leer na luuta ngoog nag gaa yi bon yi fi ñu mujj seen juróomi dëkk yi ñeenti dëkk yi ñoo gënoon a bon ci góor jigéen nga beneen dëkk ba ci mujj suuxar lañ ko daan tuddee ñeenti dëkk yëpp la yàlla yebal jibril rek mu jël mu jël mu jël peelam bi xam naa peelam gi am na doole mbagg mi la jël rek ron ko juróomi dëkk yi ba mel ni quatre francs yooyu mu ñu def noonu bi ñu ko yëkkatee rek juróomi dëkk yëkkatee ndoor ak états ya ak seen bàyyi ma ya ak maanaam lépp luñ amoon ci bee yiñ dencoon ba nga xam ne seen ganaar bu buñ sabee sa waa asamaan dégg ko ngir jege mu dipparti dëkk ba ñoom moo mujj nekk seen bàmmeel alquran wax na ko falammaa jaa amrunaa ja'alnaa 'aaliyahaa saafilahaa moo tax foo jàng ci alquran wal mutafika rek ñu ngi ci namm ñun dipparti ña mooy nitu yonent yàlla luut ya foo ko jàngee ñun la ci namm ci alquran moo tax kuy def loola boroom xam-xam yi dañ cee wute nuñ la war a mbugalee imaamu Malik dafa ne ñaari góor ñuy sëy sangewu nañ sangewu wuñ mooy mos nañoo am jabar wala mosuñoo am jabar yëpp dañ leen war a jami doj roose leen ba ñu dee loolu mooy atte Malik loolu la Malik gëm wa am tar naa alim hijaaratan min sijil ci la Malik aaya boobu ci la def iqtibaas ne comme yàlla ña tardé woon juróomi dëkk yooyu xam nga juróomi dëkk bu ñu leen i mbugal ñëpp ñoom nekk ndoor ca dëkk ba dana am ñoo xam ne dañoo demoon luuma am ñoo xam ne dañoo demoon euh, euh, seen xew yeneen yi ñooñu nag nga xam ne dañoo tukkoon génn juróomi dëkk bi frontière yooya dañ leen a yónnee ay doj da nga toog rek doj ñëw fekk la ci sa bopp bi rek génne ci sa suuf yàlla lancé la maanaam message su doj la la yónnee xam naa ne message bi dana tàng lañ mujj ñoom ñëpp ñoom ñu mujj dee kon Malick na ku koy def daal atte bi wa am tar naa lim jaartami si gi la alquran wax kon dañ leen a war a dañ leen a war a kii rek dañ leen a war a sànni doj bañ dee loolu mooy Malik moo xam sangewu nañ moo xam sangewuñ boo jëlee ku mel ni imaamu Shaafiyu ak imaam Ahmad da koo atte attab zina mooy ak mooy muy njaalo mu ne su fekkee ki ko def mos naa denc soxna su boobaa dañ koo war a rey su fekkee musul denc soxna dañ koo maanaam dañ koo war a caw téeméeri yar waaye kenn du ko rey loolu la loolu la imaamu Shaafi yu gëm imaam Ahmad tamit loolu la gëm bu fekkee moom daal da koo xiyaas ci ak mooy rek al alquran wax euh, azaniyatu wa faj zani fajlidu kulla mi at a jalda boo demee ci Abu Hanifa moom dafa ne dañ leen a war a def taxsiir kenn warul leen a kenn warul leen a rey ci jam leen ay doj kenn warul leen a jël ay yar yu ñu leen di dóor taxsiir rek taxsiir bi mooy imaam may seet seen ñaawteef gi lum ci atte su neexee mu ne nañ leen caw juróom fukki yar bu ko neexee mu ne fanweeri yar su ko neexee mu ne juróom-ñetti fukki yar lu imaam atte mu mën leen a jaaj yi ñu teg leen ko bu ko neexeti mun nañ nañ leen tëj su ko neexee mu ne nañ leen xiifal ay nangami fan ak nangam ak yooya taxsir daal lañ leen def lu leen mën a jàggi ci yar leen waaye lu ñu leen war a teg ni ci nangam loolu amut loolu la Abu Hanifa gëm moom nag da koo xiyaas ci yaminul xamuus dafa wax ne liñ def dafa ñaaw a ñaaw a ñaaw ba kenn warul leen a géttéen mi ngi ñaawaay ba mi ngi toll ni koo xam ne yaa ngi taxaw di gëñ ci yàlla fekk li ngay gëñ dara warul la ci ci ay nar ci ngay gëñ kooka xam nga dafa rëy ba wax ne doo kafaara waaye ngëñ gi ñu dégg ñu ne dañuy kafaara mooy koo xam ne li muy gëñ dafa yaakaaroon na lii la nangam ak nangam gëñ ñett la loo xam ne da nga koo gëñ ci njuumte dara waru ca laa yuwaaxizukumu laahu bil-lagwi fii aymaanikum gëñ koo xam ne duhul njuumte waaye duhul tay ci fen kooka lañ wax ne na nga kafaara waaye nag koo xam ne yaa tay di gëñ te li ngay gëñ xëy wóor na dara du ci dëgg su boobaa nag moom sa bàkkaar dafa rëy bañ ne la kafaara du ko jag maanaam kii du ko jagal géttéen kafaara tem ci ay ngëñ déere demal nga tuub da ngaa war a tuub moo tax na Abu Hanifa na ñoom dañ leen a war a tuubloo ci lu bon liñ def waaye kenn du jël ay àtte di ko teg seen kaw ah, boo demee ci na ñi nga xam ne ñoom eh, mooy mazhabu zahiriya ñoom dañ ne dañoo war a jël miir daane ko ci seen kaw ñoom dañoo xiyaat ci saayiru alquran ne fa la maa ja amruna jaal naa aliha saafilaha moo tax ñu ne daal ñaara mën a am jël miir buy bëgg a daanu këpp ko seen kaw ñi dee mu tolloog seen seen juróomi dëkk ya ñu yël wëlbati woon seen kaw wala ñu jël leen taxawal leen ci étage mën naa nekk R plus 3 ba max leen ñi daanu dee benn yoon mu ne lii mooy nekk atte ba kon li muy tekki rek lu bon la moo tax mbon daal mi ngi yem ci ak ngóor jigéen ngóor jigéen foofa la baanaam mbon yem lu ñaawa lu ñaawa ñaaw la yonentu bi daan wax ne uqtulul faaila wal mafula bi képp koo xam ne yaa ngi koy def ki ñu koy def ak ki koy def yëpp nañ leen boole ray leen lu yonentu bi wax borom xam-xam ne nag wuute ci ñu leen war a raye wuute boobu nag mooy détails yi ma indil la Maalik ne jam euh, kii ne nañ daane mi ñii ne bi maanaa nañ leen nañ leen nañ leen caw ay yar ñeen nañu ne déeréet nañ leen nañ leen wax maanaam nañ leen tuubloo imaam def tafsir atte boo xam ne rek ah, wéyal na ko ci yoon lu imaam wax rek ñu def ko ci seen kaw kon loolu mooy mooy maanaam lu ñu tuddee lu ñu tuddee liwaat mën ngeen teg foofu seen baaraam mu ngi mel ni waxtu wi dab nañu da xaw nañu sax débordé euh, bu ñu ñëwaatee ci kartanal yàlla ñu door a commencé ci walluuta nag affaire góor jigéen ak li ci aju ñi sant tey ñu teew ci plateau bi étudiants yi Tafa Joob ak délégation bi mu ak euh, soxna yi nga xam ne ñu ngi fii ñoom ñu ngi leen di sant di leen